أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد مبقو جلد بي نخمني نيو نك تي دك بي ني نان نجمل نلاندي نيو تي باتو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فعلاً مواي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إننا بني لنيو جون لن دي زيارة كي زيارة بيغا خمني زيارة ووي مو يلا چموم دي لن بالحق بباق te di leen baal dañaan ñaan yàlla mi nga xam ni moom képp moo amee ak njéggal yàlla nañu yàlla jéggal te nangul ñu liggéey bii nga xam ni moom lañu fas yéenee def comme ni ñu ko defee at yi weesu ñu bëgg nag tàmbali programme bi comme ni ñu ci dëppowoon ci waxtaan nga xamante ni bii dañu ne woon bu ñu xëyee balaa ñoo def lenn dañuy jàng kaamil yéene ko suñu maam yu baax yi fi nekkoon te bàyyeekoo fi ñu ne bi loolu wéyee ñu dem ziyaare armeel yi bu loolee wéyee ñu daldi jublu ci programme bi programme bi nag ñu bëgg koo tijjee njàngum alquran tànn kenn ci njaboot gi mu taxawee loola muy njàng alquran mi ndax alquran famille yi dañ cee góorgóorlu ba am ci waar wu rëy moo tax lépp lu ñuy def rek balaa ñoo tàmbali rek dañuy jàngal Qur'an bu ko defee ñu woo kenn ci ñi nga xam ne ci njaboot gi lañu bokk muy Mouhamadul Amin Fall di doom ci Baye Ahmadou Fall mu maam Alxaaji Yusufa Fall mu maam Dawru Ngóone Fall mu maam Amari Nguy Fall mu jàngal Qur'an kaalamin bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن baayam muy maam alxaaj Yuusufa Faal fii la juddoo maanaam loolu dafay wane importance bi nga xam ni fondation Amary Ngouy am na ko ci côté yëpp muy wàllu diine muy wàllu adduna muy lépp luy jariñ doomu aadama boo demee ci biir fondation bi din nga ko ci kon manam lépp lu ñuy soxla duñu dem diko abbi fene motax édition yi di ñëw duñu fassiyene moy concours alquran lañuy organiser xale bi ko gagné mom moy taxaw fi jàng alquran ñu jox ko ay neexalam pour ñu xam taxaway yi nga xamantene suñu mak ñu baax ñooñee amon nañ ko ci alquran liggéey ko yar ci seen njabot ba tey résultat bi ñu am ko ci nga xam ni kii doon jàng alquran tey qurra yu mag yi ñi nga xam ni ay taxkim lañ di atte ci alquran bu ñu ko déggee li muy jàng xam ni li muy jàng lu tegu la lu jaar yoon la ñu xam ni it sëtub ëmmëri ngóonee loolee lu jar a bàyyi la bu ko defee dañuy daal di dugg ci programme bi ndax waxtu wi daf ñoo njat dañuy jox alxaaji pambay mu présenté bés bi ni nga xam ni noonee lañu ko tërale waxtaanee ko kilifa yi sama ginnaaw toog nga xam ni ñoo ko waxtaanee nga xam ni fondation bi ñoom lañu doyloo teg leen ca kanam ñu ne programme bi nii lañu ko bëggee ñoom ñu waxtaanee loola ba tëral ko kon nañu bàyyi loolu xel ba ku bëgg a ñëw bëgg dugg ci wax ji te joxuñu ko ko mu bàyyi xel ni ah lii kat nekkul lu informel lu formel la lu ñu waxtaanee la lu ñu tëral la kon loolee ñu bàyyi ko xel alaaji pap bismillah yéen ñi ne ci biir kër yi génn leen ñëw fii ci bâche bi bokk yi ñu invité danoo dagg seeni ité ñëw fii ci bâche bi ce daa bokkul ci ak yiw invité nit mu ñëw fekkul fa nga xam ni si fa ko invité kon génn leen kër yi ñëw fii ci baas bi ñu ngi tàmbali waxtaan wi waaye bala ñuy tàmbali dañuy sant lamin Fall dono day dëgër dul Fall mi ko jur yusoo ko jur yusu ku dem tey mbuur wax fa alxuraan danga ko tudd da dugg këram yal na ko yàlla dolli leer moo ñi mu nekkal ñépp ci barsàq léegi dañuy jox kàddu gi ah Serigne Modou Fall mi nga xam ni mooy chef de village bi mu dalal gan ñi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki ngoos mbokki njëmel mboolem fu ma xëy ñëw fi ngir yàlla yàlla ko yàlla def lépp muy tànk yiw def ko muy tànk xéewal di tànk sutura mag ñi yàlla bay leen fi ba ci kanam ndaw yi ñu dunda dunda dund ba doyal bu ñu doyalee ñoo bëgg fa ñu bëgg yam yàlla yàlla la leen ah fii Amari Ngouy mi ñu wax ni moom la ñu tudde bis bii fii mooy cosaanam ndax moo jur daw ngoone isa ngéey moo jur mor isa ngéey ñu bokk ndey ak kon bu ñu yendoo ni moom lañuy ñuy tudde bis bi kenn ku nekk war naa jéem a xam ci loolu dara amari nguy mooy lépp waaye nag bala maa jëm ci amari nguy maa ngi sant mboolem ku fi daje muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen niti jàmm ngeen niti sutura ngeen yàlla na yàlla yokk leen barkeel leen lu ngeen yóot yàlla na ko yàlla jàpp ndal bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tey jii kontaan naa keneen ku deme ni ma kontaan nga ndax woote dajeeg say bokk ñépp teew doy naa sant yàlla yàlla mi nu defal lool nag yàlla na nu feyal mboolem lu fi waay indi te muy njariñ mbaa muy sutura yàlla suturaal ko barkeel ko ah bu defee nu dolli ko ay pas-pas ak i xéewal ci ñi ci sunu kanam ah, mag ñi def nañ li ñu war a def wax nañ li ñu war a wax kon nun ñi fi des desandi nanu dolli koo góorgóorlu yéenante jàmm di suturaalante di bokk pas-pas di bokk yéene bu ko defee suñ lépp yomb ah dinaa wax tuuti ci Amari Nguy ndax mooy dàtt bi ah moom laa wax sànq ca ba nuy na caar mel ni leen amari guy bi muy dem ci maam alaaji Malick ba muy jóg ak ceddoo ko yëkkatewoon waaye ca diggante ba la xelam dem ci maam alaaji Malick mu ne moom day am na ku muy dégg fii ci njaar njaarnde balaa dem ba bu sañoon balaa dem jaar waaye naa naañ na waaye bu ma dëppee bu sawàlla dinaa fi jaar ba mu dëppee la fa jaar nuyoo a ah, genn góor gi ñuy wax ndongo Amar ni ko man ne daama gan gan gu may dégg fii te dama koy teewoon mu ne ko des na ko man mu dugg ci biir gis maam Alaaji Malick wax ko ni ko daa am ku soxla mu ne ko nag si ba mu agsee la la daal nuyoo mu mu dalal ko mu ni ko ma ne dama lay rek di am lu may dégg ci yewet nag te ittewoo ko mu ni ko lu mu doonoon mu ni ko tarixa salaatul fatiha mu ni ko ah mu ko aw mu ni tekk bu mu yàgg mu ko ah, dana mën mu mu ko li ma jox nag boo demee ca kër ga boo ko jàppee ni ma la ko waxee man nga maa taayee seet ci waat ah yàlla dogal mu defe ko na mu ko waxe ñaanal ko mu daal di teguwaat yoon waru xosam di ñëw séeréer mu solal ba muy jël salaatul faatiha da koo summi solee leen séer bi mu dikkee bay jum njëmel mu mu maam maam daaw ngoone ak maam war a seen ko muy ñëw ñu naa lii ñëw de fasu góor gi waaye ki ko war du góor gi ndax col gu soppiku mu dikk ba gën a jege ñu naa moo ne kii yor fasu di góor gi maa ngi ko nuyoo ñu ka góor gi lu xew mën gis lu ma soppan rek te bëgg ko ah te yàlla dogal maam ko tey jii di ñaan nag képp ku ma déggal bu la ko yàlla man loo nga jàpp ci salaatul faatih boobu loolu la maam daw ngoo nag maam moori sax ñoom itam takkoo dugg ci ci ci tarixa bi maam bi mu demee maam bi ñu sancalee maam maam kii maam kii ah sëriñ sëriñ baye serigne Basiir Ñang maam Abdou Faty ba lopé ñu jox ko mam Mori ma sa mam jox ko mam Mori sa mu mu mu mu ta foofa la dal alquran fa la doon jang ba war delu dellu siwaat foofu ci ci ci ci ci ci ndax maam Mor saa ko fi yebal fii mu dikk fii ca Ngoos kon loola nangu kilifteef la akuk mbokk akuk eh, ah binaa bi loolu jàlle ngeen baal ma tuuti rek xam naa dinañ waa ji moo soof baatam bi neexu xamul lu waaye dama bëggoon a fent tuuti rek ci woyu ma woyaroon sëriñ sëriñ Abdou Faty Niang ak njabootam ak maam Alaaji Maam damaa wax ni maam Maodo ñëwoon fa njaar ndey béy béy ma antuwul mu ne mag ñi dama bëggoon aw xuur béy fi góor dunde mag ñi daal ko koy nangul ànd ak moom ba dem dangal ñii gor ñii di jéeka béy ba mu ñor mbir mi yéeme lool sunu maam Maodo delluwaat mag ñi daal di bokk ne nanu dem seeti Maodo si bi ñu àggee ci góor gu mag ni ko nun dey danoo bëggan jiite ci diina ji ku nu tegtal tarixa mi jiite ci jàkka ji ku nu jàngal ci daara yi maam as daal leen koy nangul dem leen toog te déglu ma daal di woo Abdou Fati ñag ñi ñëwal nga dem Kajoor ma nga dem toog te déglu ma sunu maam Abdou daal di jóg ànd ak ak ndigal mag ñi daal di koy sancal dëkkam moo di Tayba ñag góor gi jàng jàngaleeka bay war maal mag ñi déglu leen yërëm ndaw ñu sàmm leen li ko may li nu may maami Seynabu maam Maodo nu sedde maam Faat say taaw maam Safi ne ko demal ba tay ba ñang na nga dem toog te déglu ma sunu maam Fadu daal di jóg ànd ak ngor ga ak ndigal laxasaayu tegoog séeram dugg saxaar wàcc kel doxi kër ñëw ñëw ba tay ba ñang sunu maam Faatu wéet te muñ ma nga laan roote njaar ga ak teget la maam sampoon jël bagaan nga ak ca kaw dër dër jukki laxo ko duy te bu feesee mu róol ñu ko di ko baagante dem di ñëw amul guddi amul bëccëg te bu wàccee te te te yaram xaram toog boot boot doomam bokkub gambam ci montagne yi jëm ca tool pays maam Fatou sonn na kaka kooka moo di kan kookaay soxna ay dañang kakaaw kooka moo di kan kookaay soxna Fatou ñang kakaaw kooka moo di kan kookaay bàyyi lal la ñang kakaaw kooka moo di kan mooy bàyyi Fatou ñang ngeen baal ma àq nag kàddu gi neexul te xam-xam lanu maa ngi koy jéggal na ngeen baal ma àq salaamaaleykum wa rahmatulah macha allah jërëjëf Baye Modou yal na yàlla guddal sa fan nga yàgg koo fekke yàggee teewee jotaay bi te yàgg koo ubbi bu ko defee rek ñu continuer programme bi ndax waxtu bi daf ñoo xaw a Euh, ñu bàyyiwaale xel ku ñu jox kàddu gi rek pour mu tënk pour ñu mën a wéyal li nga xamante ni bi programme nañ ko ci bés bi yëpp pour mu jàll fi bu ko defee dañuy jox kàddu gi suñu maam alxaaji Alla Fall mi nga xam ne tey lépp lu maam daaw jur nekk nii moo ci mag mooy xalifa général bu ko defee bismillah ñu jox ko kàddu gi auzu billahi min sheytaani rajim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 الذين يؤمنون بالخيب ويقيمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنصرتهم أم لم تنصرهم لا يؤمنون ختم الله ولا قلوبهم ولا سمعهم ولا أبصارهم غشاوة واليوم حسابنا نسيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم السلام عليكم mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi naa agseegul sëñ Moustapha Niang ci wàllu famille bi maa ngi nuyu doom yi di nuyu jarbaat yi di nuyu sët yi di nuyu lenn ci soxna yi ñi nga xam mooy ñu mag ñi gone yi door cee topp di goro yi Modou Fall nuyoo bi may nuyu see rek teg naa ko sa loxo ndax fii mu ne yaa mag ci xale yi ndax maag yow sabaay la waaye kalaas lanu ak imam Maodo Fall ca Mbuur ay danoo toppante rek yow sa yaay moo ma wax ni ma ñeenti weer laa la mage kon na bay woo mu ne kalaas doon léegi nag li Moodu Fall wax lépp lu wér la leen dong la ci bàyyi mooy daaw moo di dafa ñaanoon ne doom ju jur mu fekkee kaamil ba taamu xam naa yi maa ci gën ndóol moom waaye damay wàcc kaamil sama kër jàngkat mu ci bayere ci mujj waa ñi ci des ñoom koo ci seeti da fekkoo mu yor kaamilu jukki alxuraan ba yow nga sakk sara xam ni da ngay bëgg a dee mbaa sa wërsëg dafa këpp kon nag bu lool passé maa ngi sant ñëpp li commencé ci saate gii nag ba wër ba dellusiwaat saate dëkk bu fi ne xam naa ko te dëkk bu ne bu ma xoolee seet naa ko ba dëkk kon nag ñooñu mënuñu leen a fay man nag euh, xam na du ma waaj aw ma solo lool waaye nag li askanu paaleen fii mu ci dëkk bii man la fi yàlla bàyyende maay mag maay bàyyi loolu la yàlla dogal moom ku nangu moo am ku bañit moo am man nag ñi nga xëyee dama leen di ñaar mooy njaboot gi ma yàlla boole ma ne seen kanam Modou Fall mii ne ca kanam bàyyi Daour Fall Pape Fall mii ba boobu topp ci Ibra Fall topp ci daamu màgga siis door a ñëw ñi def ñëpp ay rakk lañu ñooñu nag ñooy xalifa yi bu dee jarbaat yi Pape Diop ñëw na bare siis a ngi nii toog ànd ak ah, Mansour rakkam man nag ñi ma bokkal bàyyi ci wàllu jigéen Ngoone Fall moom mënuma koo fee jéemuma ko ndax dem na demul ndax lu ma ngóone war a taxaw rek njabootam a ngi ma koy taxawul kon nag kalaame naa leen yàlla yal na leen yàlla fay seen xol fay leen seen xol wajur a ah, bara maa ngi lay sant di la gërëm Pape Diop maa ngi lay sant di la gërëm seen xalifa nag mënatul ñëwul mooy góor a faal mooy seen xalifa ci kër ndey waaw waaye ñëwul waaye bu ñëwul te nga ñëw yow bada Pape Diop mi ñëw Alpha Diop anamu Alpha Diop ñëw doomi Codé Diop mi xëy ba ma wax Modou Fall mag la muy la Modou Fall bëgg démb mii du mag maa ko daan boot te booba Modou Fall bi mu koy wax bi mu gaañoo sorewul moo jur Alpha Diop waaw ak Adam Fall ndeyam Maguette Diop ñoo bokk ndey ak baay Seydou Ndiaye bokk Modou ndey kon nag ñoy ci bokk yi la ñu bokk yeen bokk yi nak mënu leen fay yeen na leen yàlla fayal boppam digeen ñi ko teew ak ku teewul ñemaa du nuyu amna nak ñu fi teew ñu bari ño xam ne ñi ci digeen yi lañu bokk ci soona yi lañu bokk soona yi bari teew nañu ah ñu di def ah, goro yi ba goro yi teew nañu fi goro yi waye man sama soona la amal affaire samay goro sama yónniwul ñom man samay goro sama soona la amal affaire ñinga neele tok ku mel ni Mbène Dieng ñëw na fi Fatma euh, Dieng goro la waaye ñëw na fi ñu des ñëpp nag ay goro lañu soxna yu mag yi ñëwuñu ndey billi ji muy màggal si moom fii ne moo ci mag màggat nag su ma ko dee sant dañuy defee ni dara la waaye màggat moo ko jëf ci man te ku la jëfal lu baax nga wax ko du bari wax ndax euh, kere bu ma jógee Màkka man ba ñu ñëwee sama kër di sant ka ñaan dama ne màggat siis daa ba moo yóbbu màkka mais du ma ko sant am ñu ma ne koy sant nag kon mais màggal siis lay sant màggat lay sant ndax euh, lépp mooma ndax si euh, euh, suufam laa gone woo ba màggat ma màggat màggal siis suufam laa gone woo ba màggat mu màggat ก่อนนักอำนาจมาจะขับพันยิ้มพันนักรุ่นเนียบคำลาเกียนลูกพนนักแล้วก็บารบานคำลามันนั่งมากินยานันมากันมาเราพาลังมามาบ้าคนนี้มาบุมาเดียกันที่เงินยานันเบียนนกวนไอชิขลีแม่ก็ว่ามาเราคนนู้นไม่ได้มวยมันนี่ไม่ได้เด็กไม่ได้แม่ก็มันแค่นี้ได้เปล่าครับมวยมันยานไรเด็กแต่ไม่ยานเร็ว ndax gone yi loolu ci waaye defal da koo war mu def ko yow na li nga ko mën a fee mooy ñaanal ko yàlla dolli loola kon nag bàyyi daal yal nañu yàlla dolli xam-xam bi te barkeel ko muus mii toogan fii sama sët bële waaye doom yal na yàlla def mag bën na xam-xamam bi mu sakku yàlla na yàlla defal ndam nun kat daanaa wax Maodo Fall ni ko nun danoo man dama am tiital mooy tëddooro ci yow mu ma baal la lan la may ko mbooloo moo teew mu nekk ak mbooloo mu ma a doon rek ma duma ba sëgg bu dee ci wàllu diine ji da nga ci ba wax lu bari loo xam ne ñu bari xamuñu ko woon ñuy dem ba dem di dem ba yàlla am kenn kum ci dugalaat muy Cheikh Fall nii kii bàyyi àll àll faal ko jur àll faal bàyyi moo saa ko Alla Fall soxna suñu wax Fat Njuur moo ko jur ku waaw Fat Njuur Kumba Fall Njuur mooy yaayu mooy yaayu sa baay Alla kon yal na leen yàlla gën a barkeelal bu ko defee ñuy fàttali rek don de sang bi nga xamante ni bii dañ ko organise waale ci bés bi ku bëgg maye deret médecin yi ñu ngi fii ci jàkka ji muy mbir mu am solo lool nga xamante ni yiw wi ci ne kenn xamul nu mu toll ñuy ñaan ñuy organiser wu ndànk rek ñuy dem après dem daal di maye loolee lu am solo la bu ko defee ñu continuer programme bi kon dañuy jox ki nga xamante ni bii kuréel gi moom moo ko jiite fondation amari nguy Fall li muy bari bari li nit ñi takku takku macha allah moom la ñu jiital ci bopp bi teg ko ci kaw muy président Cheikh Ahmed Tidiane xamanteni mom mo jité moo jiite liggéey wii nga xamanteni bi dañ koy def bu ko défé mom lañuy jox mo daldi dugal li nga xamanteni bi mom la wara joxe ci bés bi bismillah kon président bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بوكين جميل فال نيوغلين دي نيو جناو بنيو سنتي سنيو بروم تبارك وتعالى جلتي سانغو سانغوي محمد صلى الله عليه وسلم di ci jiital nag suñu bàyyi àll faal nga xam ni moo mag ci njëmel yal na yàlla yokk fanam yal na ko yàlla doon di wér ah di ci teg li nga xam ni mooy borom dëkk bi di sëñ Modou Fall mi doon wax léegi moom itam yàlla na ko yàlla may gudd fan yàlla na ko yàlla dolli wér di nuyu sunu cheikh sunu sëriñ sëñ Moustapha Niang ah, gisaguma ko waaye yaakaar naa ni bala ñuy jóg dina ñëw moom itam yal na yàlla dolli taxawaayam ah dafa am fu mu jàll ah, di nuyu eh, bureau exécutif bi nga xam ni moo doon saytu liggéey bi boobu ba léegi di nuyu président cellule nga xam ni it lu bureau bi togg ba mu ñor bu leen ko joxee ñoom ñoo koy exécuté jàllale ko ci nit ñi ñooñu tamit amel nañ leen jaajëf a ah, di sant nag képp koo xam ni membre nga ci fondation Hame Marie Ngoye Fall ndax ku ci ne fa nga toll am nga sa taxawaay loolu ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm di leen ñaanal xam naa li may tàmbalee rek mooy di leen ndokkeel ndokkeel ci bis bi nga xam ni li ci am lépp lu sérieux la bis bi bisu dox mbokk la bis bi doxu bisu xamante la bis bi bisu ah sant yàlla la parce que lii mooy troisième année boo xam ne ñu ngi koy organiser ah, ñi nga xame nii yàlla dogal na ñu génn àdduna di sunuy baay di sunuy mag yàlla na leen yàlla yërëm Baay Omar Fall daje bii fekk na ko fi daaw dañu dem ziyaare ku nuyu ko yàlla dogal ginnaaw bi mu génn àdduna kon ñu ngi koy ñaanal mu doon nit ko xamni bayyi won na xel bu baax alquran al karim foko ma sa gis rek ya nga gis jukki bi ci loxo lol nak yalla na top doomi ak sët bañu bayyi wat xel li nga xamni moy secret sunu ñaari dekk yi di di ngoss ah yalla dogal na ñu daje li nu dajé principe diine la principe bu deret la aussi principe bu diine bi mooy ñun danoo bokk lislaam bi walhamdulillah te boobu sax mooy bare bi nag waaw mais bëleer it l'islam négligé wu ko benn yoon mooy bokkoog deret ñaar yëpp la boole woon mooy sallallahu alayhi wa sallam doxalinam yépp loolu la wane khadija sax ñi ñi nga xamni dañu amone ak mom kóllëre ah yonent bi da len daan teral ñukoy laaj lu tax ndaw si nga diko teral ni mu ki kii jamono khadija da fi da ñëw kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwul dara kon ñaar yépp ñu ngi ci bokk nañu diine ji waye bokk nañu deret ji tamit xam nga alquran بوي وقت سورة النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام موي لي بوك تي لأن نانا موي تولين ماتي تك إن الله كان بكم رقيبا عليكم رقيبا لأن يالا مي لين دي فوغلو تك لين بت تي والو فيت اتانسيون لول لا بغا kon defe naa ni loolu benn avertissement la boo xam ni ku ko dégg xam lim firi ah di nga bàyyiwaat xel mbokk gi yonent bi beddiwul woon ñi bokkul ak moom diine te bokk ak moom deret am na cër bu mu leen joxoon fa ñu ko gën a weddee taxaw na ni kat am na loo xam ni boole na ma ak yéen dinaa ko toppatoo muy mbokk gi kon da ngay xam ni mbir la moo xam ni dafa dangereux ni mu amee importance noonu la dangereux yonent bi bu naan la yadxulul jannata qatiu rahim àjjana moom koo xam ni da ngay dog ak mbokk doo fa teg tànk wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuxa kon loolu rek doy na pour que ñu xam ni dox mbokk gii du ay faras lu sérieux la te nañu góor ñun ñépp ba seytaane bu munu man dëgg-dëgg fii dañuy rafetlu bu baax effort yi nga xam ni euh, kilifay fondation bi def nañu muy effort yu bare bare bare bari ci wàllu wone nag def nañu li ñu man ak li ñu mënul lii nag man dama xam ni am yaqiin ni gëm-gëm la rek bu du woon gëm-gëm fii nu ci egg duñ ci egg ndax foo gis ku joxe dërëm am na ku joxe ñaar dërëm ku joxe junni am na ku joxe téeméeri junni mbaa juróomi junni mbaa fukki junni mbaa ñaar fukki junni kon ak mbokk a tax bu doon bëgg ay projecteur rek kon duñ ko def ba pare nag bëgguñu sax ku ko yëg ñun noonu lañu ñu tërale fondation bi parce que liñ tax a jóg ëpp na sunu jëmm yii nga xam ni amul solo mais li nu tax a jóg ak mbokk la mbokk nag day sincère waaw moo tax dëgg-dëgg loolu mënuñu jóg fii te duñu leen ci sant di leen ci encourager parce que ki sant daf la ni gën a la góorgóorlu kon kenn li ko tax a jóg mu def ay sacrifice du ay intérêt matériel yoo xam ni daf koy dabu du loolu loolu moom dañ koo daj ci biir liggéey bi ni mu demee jël seen temps def ay va et vient lakk seen carburant kenn remboursé wu leen ko ñuy dem diggante Ngoos Njëmel dakaar ci ay réunion ba ay guddi te kenn lañ ci joxul paas loolu gëm-gëm rek moo ko mën a kon ñu xam ni yàllaa tax ñuy def sax waaye ñun itam ñi ko ànd ak ñoom deug dëgg rafetlu nañu ko te li rek moo ak mbokk bo démé ci organisation la daj kenn xamul num mu toll ñi nga xam recensement amna document buñ ci liggéey nga xamni xamna baara dina ci ñew muy arbre généalogique bu famille bi boko gisé niñu ni ko bindé rek nga xamni ni don def yéné motax mu di ko def Ah, loolu day dimbale ci ñu mën a xam parce que bind mooy sax leneen loo bindul boo moytul dina réer boo demee ci communication lu ngeen fi gis comme support ci ñoom la annonce yi daan jàll ci groupe yi di leen yëgal ni mbir mi jege na ñoom ñooy def montage yi ñooy def lépp te laaj ñu ci dara kon loolu dañu ko rafetlu bu baax waxuma nag secrétaire général mi nga xam ni amul adjoint PV du tardé saa yu ñu réunion bu ñu toogee léeg-léeg vingt-quatre heures quarante mu defaral la PV jox la te ku ne xam nga ni PV mooy tableau de bi nga xam ni boo ko amee dinga xam fan nga jëm ak li nga xam ni moo taxaw ci sa kanam kon baara ñu ngi lay ñaanal ñu ngi lay sant sa bopp ngay defal waaye terewul dinañ la encourager mu def ko Pastef te xam naa ni yor na yeneen responsabilité yoo xam ni kenn xamul et damay tamit ay quelques personnes yoo xam ni dañoo def lañ war def ba pare xam ngeen financement lii ñun la famille bi la def lañu def ba ñu xam def nañ ko mu toll nu ne ñu wëlbatiku encore defaat ku leen man leen sax waaye ñu xam ni nit ñi gis nañ ko te it nit ñi war nañoo góorgóorlu ñoom it fu ñu yam war nañoo góorgóorlu ba dolliwaat ca leneen te it ku koy def it doo ko ñàkk xam nga alquran ku gàttul xel di nga ko mën a dégg wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifu alquran moo la naan loo joxe maa koy remplacer waaye ku gàtt xel dana jàpp ni moom bu génnee dootu am day ñàkk waye logique bu borom bi tabarak wa taala bokkul ak bu nit moo la nan gagner xaalis waw ci carte da ngay gagner mu ne la da ngay torox nga di way ki lu muy wax ni man ma am xaalis mu nan da ngay torox ku amul xel du deg lool ki am xel nak moy xam ni barke dafa am lu amul barke nak motax ngay carte gagner nangami million ba pare ñu ne la da ngay torox man ko deg kon nag kiy joxe tamit na jàpp ni lu mu joxe am na ñu ko dund nag ñoo xam ne dañ ko dund saa yi ñu joxe dix mille francs wala cinq mille soo moytul balay ngoon wala balay semaine bi jeex ñu jot lopp loolu lii nag ku gëmul yàlla doo ko gëm yàlla nañu yàlla boole ci ñi koy gëm euh, kon xam naa ni euh, quelques mots rek lay tëjee ci quelques points yoo xam jàpp naa ni continuité la ci thème biñ defoon daaw maanaam ban taxawaay lañu war a am bee mbokk bii ñu fexe ba mu dëgg la ko jiitu nag ndénkaane la mooy cellule yi il faut ñu activer ko ba nit ku nekk yëg ni am na foo bokk foo xam ne année bu ne dinañ daje ñu seet nu ñuy organiser parce que cellule gëm naa ni sax dafa war a am xaalis ci keesam war naa am lu mu cay yëkkati jëmale ci kees nationale loolu ay xalaat mooy tax ñu seet nu ñu koy organiser mais idée bi rek laay lancé noonu beneen bi mooy dëkk yi ci njalbeen gi wax naa ne li ko fondé mooy alquran mooy lislaam te gis nañ ni xaw na sooxee te suñ sàgganee dinañ dem ba nga xam ne ñu mën a tiim kaamil bi di jàng duñ ko am moo xam njëmel la moo xam ngoos la ngoos sàmbali nañu daara kon fii dafa war a am daara man gëm naa ni dafa war a am te yaakaar naa ni fondation bi war na mën a boole loolu ci ay projet affaire bi du ay ay ay affaire amateur de danga ci ciy ne ci biir sinon dangay dem gestu la fi mag ñi bàyyi woon lépp réer yàlla nañ ci yàlla musa kon wet googu gi euh, beneen dénkaane la euh, xëy na dafa am lu aju ci naka lañuy wattoo manam jokk mbokk gi nañuy fexe ba mu sax quelques points rek la ci wax yu gàtt moy bi ci ñëk moy ki nga xamni ni dafa laa dog nga jokk ko ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena dox mbokk deug deug ak jëm ko deugëral nekkul rek nit ki rafetal ci yow doxal mbokkam ak yow nga fay ko ko waaye fekk koo xam ni dalaa dog nga fexe ba mu jokk la nga jokkoog moom maanaam réparation la loo xam ni dafa nar a yàqu nga jóg sol sa dàll pour defar ko kooku beneen niveau la te kii bu amee benn yàlla fay ko ci jokk mbokk googu yow di nga am ñaar waxu yonent bi nag laa leen di wax ci wolof sallallahu alayhi wa sallam kon defena ni ku ne bëgg nga bo demé ci yowmal qiyamah yàlla na yeex nga fekk fa point yu bare bare yàlla nañ ko yàlla defal euh yonent bi sax sallallahu alayhi wasallam da na wax ni sarax boy joxe bi ci gën moy sarax bi nga xamni mbok nga ko jox bay ci sa tànk lañ wax commencer ci ulul arham soog jàll jëm ci lenen benen bi muy wax ni foofu dafay wax ni sax bi ci gën a garaawati mooy ki nga xam ni dafa mer dafa foñ nit ñi da leen a bàyyi nga jël ci sa alal jox ahsin ila nnaasi tastaabid quluubahum fa taalama staabada al insaana ixsaanu nee na nit ñi boo rafetalay jëm ci ñoom loolu dina tax seen xol yi nooy ñu nangul la kon nag nga tàmbali eh, ci ñi la jege beneen bi mooy mbokk ànd bu ne léeg-léeg moom ay tolof tolof ami jafe-jafe waaye li nu war mooy ñu fexe ba yàqu-yàqu du am xam nga yàqu-yàqu diggante bu yàqu musiba la yonent bi nee na rasoir la rasoir nee na waxuma leen ni dafay wat kawar de waaye diine lay wat bobbi ko maanaam diggante bu yàqu sa diggante ak sa mbokk wala sa mbokkum jullit nee na mook rasoir moo raw sax rasoir ndax du wat kawar waaye day wat diine lay wat bobbi ko yàlla nañ ci yàlla musal kon na kiy dox pour defar diggante bi kooku kat na xam ni mi ngi ci mission bi nga xam ni moom moo tax fondation bi eh, taxaw tey gii kon boo fekkee ñoo xam ni seen diggante nga yàqu fondation bokk na ci ay mission am wala membre bu ci ne nga jéem a góorlu eh, pour faj loolu yonent bi daana wax ni xanaa yéen bu ngeen déglu ma wax leen loo xam ni moo gëm moo gën koor moo gën julli moo ko ëpp degré maanaam point yi ñu ciy fay ñu ne ko luy loolu yonent bi sallallahu alayhi wa mooy defar diggante bu naroon na yàqu diggante bu naroon a yàqu nga defar moo gën point yi ngay am ci julli gi moom gën point yi nga xam ni moom ngay am ci koor waa ngir defe ni li amul solo te lii dëgg-dëgg mooy ñu fekk ko nit ñoo xam ni dañoo bañante gis nga doomi bàyyi sax dañuy bañante léeg am ay problème seytaane dugg seen diggante ñu war a séq jàmm rekk da ngay gis ku ne suur sa morom doo dugg këram du dugg sa kër doo wax ak njabootam du wax ak sa njaboot loolu nag ku ko fekkee a ah, bokk na ci sa mission diine d'abord mais mission fondation bi nga góorlu ci loolu nga regle ko loo man yàlla nañ ci yàlla dimbali baat yi eh, lott na ci wax li may yëg te jotaay bi xat na kon daal ngeen xam ni góor ak jigéen mag ak ndaw ak fu ngeen mën jóge fondation bi am na mbégte ci yéen ndax am objectif di ko viser def cent kilomètres def quarante kilomètres ñu ne foo jëm mu ni njëmel looy dox yi mu ni ak mbokk defe naa ni loolu kenn mënu koo fay borom bi rek moo ko mën a fay kon yàlla na nu yàlla fay yàlla na nu yàlla nangu li ñuy def yàlla bu seetaane am ci ñun yoon ba ak naafeq di ci dugg wala ngistal لب يالنا الثل يالنا ريك تخ والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله عليكم السلام ورحمة الله جرى جف شاف في كادو يا أم صلى يو يو يالنا يالنا بركة تيجينا لير سدن يالنا دم كيف بقول يك كادو يي مجانين يا xanaa di fàttaliwaat rek doomu de sang bi ñu bàyyiwaat ko xel ñi nga xam ne am nañu yéene xettali jaamu yàlla yi médecin yi ñi ngi ci biir ku bëgg a may rek mën na yegg foofu mu def ko bu ko defee kon dañuy jàll kon alaaji Pambaay bismillah yi nga may ñu tuuti rek président jerejeuf ah bo bob, xam sa ibok. da ngay xam say bok téré gi am ci adina bi yépp dara andi ko lu réer gi nek doom adamay fim nek da nga gis ko dana am juroom ben fukki ak boko la yon munu la wax ñetti mamam koku nuko neex mel ñamu jur ñu leen neex mel kon fondation bii daara la école la ki nga xam ni moom ngeen ko tuddee ku ragaloon lu naqari yàlla la maam amari nguy ku bëggoon lu baax la ku nanga woon a sonn ci ak bokk la ku saxoo woon di defar ay problème yu amoon ci digg mbokk ak mbokk kon bu ngeen ko tuddee fondation bii na nekk seen royuwaay lépp loo xam ne si nekk na ci nit ku baax suñu boroom def na mu jukko woon ko kon dañuy yem foofu en attendant jox kàddu gu El Hadj Tall parce que nee na dafa am day dem ngalik asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi jégalu nag ci siif gi ma siif baat bi te waroon fee toog yendu fi and ak yéen ndax ku xam li dox sama digeunte ak ñi sante Faal ak bokku la moy liñ daan wax Lat jor lo bok ak Demba War mu ñu yak bala may wax li ma bëgg wax nak damay nuyu képp kuy soxiko ko wala ngoss ngos am ci yéen it mbégte bu rëy ndax man day li may gën a nawee doomu aadama mooy fonk ay bokkam fonk ab dëkkam di nuyu bu baax la chef de village du Fall di sama xarit bu yàgg di nuyu président Cheikh Fall ñi nga xam ni nag ndax léeg-léeg damay dajeeg nit mu ni ma yow da ngaa defee ni ñi sant Fall ñoo gën ci réew mi waye fokk may fatali lan moko waral man sama mam bi mi ñew kedegul danaka degul wolof mi ngi tudon biran Demba hal pular la ñogu jambal moko indi kajor. mu defal ko ñaan ñu def ko ci tama mu ni ko jox ko sa geewal mu wër rew mi bu ko tege ku ko deg ding ko yilif ginaaw ba loola weso mu ko dama bëgg ñu dëkk mu ko man damay dellu fuuta ab sàmm laa mu la may dëkk may la suuf su yaatu foo mën a nekk ak sa njaboot mu daggal ñu ngol ngol daggal ñu ay tool bi nu ñëwee ci sama maam won ko li laman daggal ndax booba dameel amagul mu ni ko lim jox doyul ñu dolliwaat ko lu ëpp lañ ko njëkk a jox mu ni ko léegi yaana moo tax boo demee ngol-ngol sunuy tool yaa ngeen la tudd ndax yaa ngeen léegi ñu ni ko yaanaan keroog bi amari ngoone sobel faal di dem danki di jote ji ak lelli fuli fakk ñetti mag la àndaloon man ni nag car juuf di ndijaayam ci moom ak weynde jeng bi dëkk njigéen gi ak ma jataay taal sunu maam ñun waa ngol-ngol kon xam nga sunu maam munoon naa des danki ca sagata jolof loolu nag di loo xam ni dama koo téye li nga doon wax léegi président ci coloré bi ngay nettali xisa bi yonent bi di teral ay doomi aadama ndax Khadija ndax daan nañ ñëw ci Khadija man nag suma maam dafa àndoon ak yéen ci lu rëy mooy loo xam ni bakkan man na caa des motax ñun ñi sante tal dekk ngol-ngol ku ci xam sa histoire bo gisé ku sante fal dang koy jappé ni am tour kon nak lolu nako ñepp xamé lolu motax leg am ñu may ni ma yow defe nga ni ñi sante fal ño gën ci réew mi mané ko ñoma ci gënal man te sañ naa ko ndax euh, gis na ku bëgg lo xey du dara waxuma nak man ma bëgg ño xam su fekkoonte ni maa doon dogal ci constitution Sénégal ku amul maam mu def dara ci réew mi sax doo doon candidat man personnellement parce que juddu akum néeg dafa am solo waaye nag am na loo xam ni dama ko constaté mooy Amary Ngoone Sobel bari na ñuy fëgg seenu dënn ni mooy sa maam mais boo demee seen kër doo fa fekk turam te loolu erreur la am na ñoo xam dañ naan décce fu njóogooy sa maam boo duggee seen biir kër doo fa fekku turam te aw tur <laughs> dafa naa ni amari ngoone kiñ ko tuddee amari buubu ja érudit lislaam la nitu diine la ku xamoon alquran la amari buubu ja amari mooy amadu rek donc tur tur yi di fexe ba koy tudde say maam ak say bokk dafa am solo waye jur fukki dom ak ñaar wenn tour du sa bok wala nga tak ñent jabar te benn du ci sa bok xamal ni sanni nga sa bop te reer nga xamago ko nak balang ko xam nga dem eh, ñaarel ba ci li nga xam ni askan yep war nañ ci gor gorlu te dekkal ko te fonku ko ba mu rëy lol modi di ablal xam nga am na yenn docteur yeeg yooyu xam naa dañoo bëgg ñuy indi dongo yi ci ñoom dañ naan euh, euh, jong moom boo juddoo rek mën nga koo def déedéet d'ailleurs boo seetee léegi ñi am problème ci néegu sëy mooy ñiy juddu di ay liir ñu di leen jongal nijaay ja téye ci loxo bee na ko bay maam mbenn doon waxe docteur bi téye fii muy yuuxu ñu koy jongal te mag ñi dëkk kajoor fii di sunu maam yi nee nañ kuy jong di jooy du am jom bu ko defee famille yépp ñuy def bu xale yi amee sept ba huit ans parce que kii demub lël daa war di fàttaliku ñu boole leen bu ñu doonee téeméer baax na bu ñu doonee juróom fukk baax na bi ci gën nag yéen ñi nga xam ni yéen a dëkk njëmel ak ngos bu ñu indee lël bi ren njëmel bu déwénee ñu yóbbu ko ngos wala buñ ko yóbboo ngos bu déwénee ñu indi ko njëmel nekkul nag ni danga nga naan man sama doom njëmel noo njëmel actuellement xale bi bu fi ñëwee environnement bi muy gis moo ko gënal nga jongale ko Mbuur wala Ndakaaru wala Kaolack wala Dagana lël boobu mooy euh, néegub góor tubaab yi dañ ni c'est l'éducation l'éducation par l'épreuve ndax ñi àndoon dem lël danga daan dégg sax ñëpp bu ñu fa jógee ñu naan kii ñoo bokkub lël bu fasee sama jabar dog na kon xam nga ko këllëree dëgër na waaye bu fekkente ni kenn ku nekk da ngay jël sa doom yóbbu dispensaire te mu am ay bokk am doomi bàyyi ñu war leen a dajale bu ëllëgee ñuy tuddante ay doom amantey kóllëre lu mat a xeex la pour muy taxaw ci dëkk bi te dëkk bi am na fu juróom fukki xale mën a tëdd bu ko defee ñu am bootal am ku leen di kasagal ñu dem ci all bi leg leg ñu yobul len ci genn guuy ni len fi guuy gi de seen mam diw fi la nangam fi la nangam lolu lu ama am solo la te ak bok dama mas di waxtaan ak euh, Samba Fall muni mom mbok tudul mbok sa bop la tudd te dama koy gattal rek ma ngi gërëm nak ñi nga xamni ni dañoo juddoo ci dëkk bi te mësuñ ko genn ndax ñooñu ñu mat a gërëm lañu am na ñoo xam ni bu doon ñooma naga ni dëkk bi boo ñëwee xëy na dangay laajte fu mu newoon sax sàmba Fall même ma nga juddoo Dagana bàyyam fonctionnaire de l'État la woon bu fekkoonte ni kenn newul ci dëkk bi bu fi ñibbisee day laajte fu dëkk bi newoon waaye ñi fi newoon téyel leen dëkk bi ñooñu kenn mun leen a fay encore dinaa tànn Samba Fall pour gërëm ko ci turu askan web, ci turu kubeg ku bëgg sa bop ndax Samba demone na bañu tek kop dof waaw tek kob dof parce que nit sa yu wax lo xamut do da ngay japp ni du nit fekk na fa mu logul, da nga faa mais bis bo fa tollo di nga xam ni li bëgg sa ñariñ sax ci la nek moy delu ci sunuy dekk defar sunuy dekk bu sunu way jur génnee àdduna nu yóbbu sunu bu ko defee ndax foo suul sa ndey ak sa baay dootoo ko bàyyi dootoo ko ba mukk ci àdduna te gis nga léeg-léeg am dëkk yoo xay dañuy gën di arrière li tax ñuy gën di arrière mooy day am ku baax ku bokk ci askan wa génn àdduna ñu yenn yóbbu feneen mu yóbbaale barkeem ñu bari nag xamuñu ko waaye dëkk boo gis muy gën di daanoo ko yàqoo ko néeg ya fa newoon di daanoo dëkk bay lakk dañoo jël ku amoon barke ku ñu war a denc ca dëkk ba ñu yóbbu ko feneen loolu amul ben importance di gërëm aussi Dame faal parce que nag man ku def lu rëy ma wax la lu rëy de dam boo duggee ca kër gee même bu dul sa mbokk boo dee ku baax bëgg lu baax di ko ñaanal ndax c'est très important Samba yow it nga gaaw yeggale wax dëgg yàlla ndax affaire yi na quoi nga gaaw yeggale ko nag li koy yeggalee ngi fi waaye boo toppee yenn yi moom dina yeexa te warul yeex waaye nag képp ku ñëw ci dëkk bii tey jii nii muy dekkee na la na la bu baax ndax boo toogee moom man ngeen a toog ñetti waxtu luy yokk dëkk bi ak luy yokk eh, mbokk gi képp lay waxtaaneek ak yow il foncièrement en enraciné xam nga Senghor daf daan wax naa naan euh, enracinement et ouverture waaye ñun ouverture rek ouverture lañ gën a fonk ah loo am def yóbbu ko ci àll ba waaye dëkk bu toll nii sa maam bokk ci sëti dameel yi boo fa demee sax amoo néeg boo tëdd loolu gàcce mënu ko weesu te ndakaaru foo romb ñun la immeuble bi yaa ko moom yaay luwee kër gi te dëkk ba nga cosaanoo amoo fa dara da wax léegi tudd turandoo tur bu génnee aw askan daa fay bor alaaji alaaji fekke ma waay da ngaa tudd léegi tur man la tur bu génnee aw askan daa fay bor man mëri nguye ma jur fondation bii mëri nguy la tudd kon askan wi ngeen bok leen ci war yeen moma ci war man ci defar ak defare ñuy sant nak askan ñu ci bok ñepp ndax aw askan bu nu àndee danañ am baat danañ am ab si waaye waxtu wo xamé ni si seytaane dugg na ci seen bir ba len rero mo len di tasare ken dootu jëm fenn woowu askan day néew doole ndax du am ànd ñu ngi leen di sant nag yéen yéen sëti Mory Nguy yii ndax xam ngeen ni lu ànd waru leen laman yi ngeen fi gis yëpp kun fi dégg ñu naan daa bari suuf seen maama ko jox suuf àllu bi ñaax daaw cër bee ñu sant mbaay loon ko jox ma nga nee ci gent bi suñ diggante ak njogomaay bi mu jógee foofa di sañ si fii tool yam yoroon suñu maam la ko jox kon ñi ngi sant bu baax kep ku bok ci famille di len ñaanal xewal di len ñaanal wër waye nak di ñaan jam ak jàmm seen digënté kon dal ah ñi ngi len di fàtte yit ni gaay yi nga xamni ño nekk ci bâche bële ngeen di seen ci jakka ja ñaan deret mo len fa bayyi ku bëgg maye deret dem fa wax naa leen léegi leen maye deret jot ak ruu la jigéen mën naa mucc ñàkk ci deret loo xam ni bu ñu ko rempliwul mu dee nit mën naa accidentement subaana ñàkk lool ci deret bu nu amul deret ju ko rempli day dee kon di leen maye ci seen deret bi nga xamee ni si yéen a ngi koy man gaa yaa nga fee toog di leen xaar ku fa dem loo fa yóbbu incha allah rabbi dana nu jël sa deret te du la laaj dara kon dañuy jox kàddu gi Mansour Sy mi nga xam ni mooy vice président jataay bi moo topp ci Cheikh Ahmed Tidiane Fall mi nga xam ni moom itam loo ko naxe ci kër Maajoor nangu na waaye loo ko naxe ci kër ma Maringuy nangu na. asalaamaaleykum mbooloo mi président ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla yàlla dolli la sutura barkeel xam-xam bi bi jaay Seydou Ndiol. ah yow war nañ la gërëm ndax li nga mën ci fondation bi yëpp yaa ngi koy def yaakaar bi mbooloo mi am ci yow te jiital la ñu ngi koy gis ndax jiitu dafa metti te jot amul mais yàlla mi ngi dogal sa jot jox nga ko fondation ndax ak mbokk kon yàlla la mbokk fay yàlla dolli la barkeel defal su sutra di jaayi say jot jappal ni dal ñepp gëreem nañ la ñu sa ginaaw ndax jitu yombul ndax jamono mo xat te aduna jafe ni nga ko waxé woon ci jitu di dem ci réunion yi ñi dox guddi ak bëcëk man nii nga gis ku ci yaafus la suma gisé ku ci yalla dogal mu am ci pastef do man lu dul encourager ko gëreem ko baara ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla yàlla dooli la sutura yow secrétaire général parce que li nga war a def yëpp yaa ngi koy def mu nekk lu metti loo xam ni yaa ngi ciy dox di ci sonn ah mais nag loolu rek lañ yaakaar ci yow kon tam am nañ droit ñaanal la yàlla dooli la sutura ak barke di ko ñaanal bureau bi yëpp ak mbokk bi ah naam wax ji man duma ci sori ndax li ci cheikh waroon wax yépp wax na ko mooy ci wàllu diine ba ci mbokk lépp rafet na kon daanaka dama ci sànni kàddu rekk niñ ma ko joxee dina ci sànni kàddu ah ñuy gërëm suñu nijaay àll faal ñii muy seen lijaay ñii mooy seen bàyyi ñun mu bokk ak suñu waajur bu jigéen benn waajur bu góor yàlla dogal ñu ko Cheikh waxee fii ci njëbel moo fi mag mu nekkit mag mu baax mu lewet bu yàlla defal loolu ku ne ak li la yàlla defal kon góor gi ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla yàlla gën a dolli sa sutura jox la wér bi jaay Seydi Wujoot nga dalal sa xel ndax yaay sunu ndijaay ñi yaay seen baay gëmal ni li fi nekk yaa ko moom sa njabot nga am yalla mo dogal mag ni jitu nga dess fi lolo dalal ci sa xel xamal ni nit du jox bopam yow yaay sunu lépp yalla yalla barkel dolli barkel la yoo ndax li nga euh ñun ñi sey jarbat bu ñu sañee dundu ko kon bu la ko yalla joxee ci fi nga tollu ci yow togal rek nga dalal sa xel ñun ño wala def ño la wara defal lepp bu dee ci njëmal bu la neexee nga toog boo yónnee sax yónni ma yow bu ma sayoon sa kàddu sax duutu jib yow yónni ma rek ndax dëkk bi nag fi laa bokk ndax jarbaat laa fi naam sama wàll ci suuf si nag kenn joxaguma ko mais nag jarbaat laa ci dëkk bi lool nag jaaxal na ma lool buñ jógee ñu waxtaan ci man sama wàll jotaguma ci Modou Fall chef de village comme niñ koy waxe li ko waral moom moo mag ci dëkk bi ci wàllu doom góor gi Alla Fall moo mag ci wàllu baay te moo fi nekk toogoon fii am néegam mësta àndu ñun ñu suñuy néeg àndu nag bu ñu dellusee duñ mën lu topp ci ginnaawam rek kon Modou yaay chef de village ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla du sutura mais dee ma dee ma consulter nag ndax maa yor baatu pa àlla baat bi tey à partir tey jël naa ko dee ma consulter baat boobu moom man mi jar baat jël naa ko ndax dëkk bi day dëkku cosaan te damay dañuy bañ am na ay ruurkat dañuy bañ ñu dugg di ruur te dëkk bi kenn du ko ruur ku ko nar ruur ñu taxaw loolu nag am naa droit wax ko man rek maa ko fi mën a wax nag kon donc parlement yor baatam Modou dem a consulté buñ jógee ci loolu daal ñuy gërëm ñëpp di leen sant di ñaan yàlla yàlla gën ñu dolli sutura xam ni bis bii bis bu taaru la defuñu ko ci dara du dul rek doxal ak mbokk li tax mu jara sant nag mooy dafay dafa nekk lu metti bureau bi ko yor nii coono bu metti lañ ci dal nit nag mën na ñëw toog du xam lu ci xew mais lu metti la ba ñu agsi fii loolu yëpp yàlla dogal na defar mbokk rek moo tax yàlla yàlla defal sutura ah ñuy gërëm Ousmane Fall bu Ngoos ndax mooy chef de te ñaari dëkk yi ñoo composé mbooloo bi Ousmane Fall bu Ngoos ak Moodu Fall mu doon daaw ngoone isa ak moor isa kii daaw ngoone moo mag joxi ndigal moor isa dellu ngoos toog fa comme ni ñu koy waxe ci suufu kër ndey loolu na mag ñi doon doxe loolu moo doon digal li moo dem mu féete ngoos ca boori ngaay mais famille yi ñoo bokk lépp ndax góor gi Mor Isa wax nañ ni ci Tayba gii la yaroo fi la nekkoon defe fi léppam ndigal moo ko yóbbu ngoos kon donc bu fi teewee mooy ñaar ñi nga xam ne ñoom leen dénk dëkk yi muy Modou Fall ak Ousmane war nañ leen fejal feeñal sunu cofeel feeñal leen sunu qualité war leen ni liñ leen dénk yéen ñu ko yoral ñun nag mënuñu dulul daw ñëw ànd ak yéen sagal dëkk yi rek liñ fi def yépp sag rekk la pour fekk rek famille bi ànd nekk benn bu ëllëgee njëriñ am ndax yi ñuy dox yépp di tase defuñu ko rek pour gën a wéral famille bi rek a tax ñu di ko def mais ci kàttanu yàlla njëriñ yiñ ci yaakaar yépp dina ñëw ndax li gën a jafe mooy boole mbooloo mi defal xol yi ba ñu nekk benn suñ ko defaree comme ni ñu koy defee ci ñetti at yi ba mu nekk benn li ciy topp mu ngi ñëw mooy njëriñ mais xol bu ñu àndul suñ fi indi woon cent bu subaa mu yàqu kon donc ñu ci liggéeyu fexe nit ñi ànd nekk benn ba bu ëllëgee buñ fi indee dara ñépp man ci ànd jëriñu ci kàttanu yàlla ba sunu nawle yi ko séqal ci wàllu gox bi ñoom ñépp ñu gis ci seen bokk seen bokk kon donc loolu mooy li nga xam ni doon nañ leen ko rekk feeñal ci wàllu mbokk bu loolu weesoo ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp àll ñu lay gërëm di la sant yow ci adjoint yi nga bokk yow it nga déglu ma rek yaay sama mag nag mais déglu ma waaw nga déglu ma rek dëkk bi moom mi noonu donc ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal yëpp yàlla Moustapha Niang dégg naa jaar na fi dem ah ñu koy yóbbante nuyoo di feeñal cofeel gi nga xam ni moom la yàlla def ndax ñun dañu judd rekk ñu wan ne ñun ñii ngeen am looloo tam doo man lu doon di ko feeñal coom ñoom niñ koy rafete la yàlla yàlla dolli ko sutura dolli ko barke bi jaay Seydi wu jot ah di ñaanal mag ñi nga xam ni nekkoon nañ fi ñu góor gi Omar ak ay magam ak ñépp di rafetal baag si fii nekkoon nekk askan wu baax xale yi dam ñu leen gën a dénk rek ñu gën a góorlu gën a góor góorgóorlu dëgëral li ñu am faaleen nag parfois nga dégg ci yoo xam ni mooy war nañ koy ñax xale yi naqari deret boobu baaxul te bari na ci faaleen nag te koo ci gis rek mi ngi bëgg a won ni man nii laa mel dama naqari deret naqari deret nag war na ànd ak xam-xam parfois ñu teg la loo xam ni metti na mais nga gis ni fiñ la ñapt mënu go genn nga neex dara ba genn ci baax na ci defaa leen moom gone yi ko wax rek ma ngi lay wax naqari dem te demagul fen kon ngeen gën gor góorgóorlu yalla doon yalla yalla doon len sutra defal len barke bi seydi wu jor sunu gan ni gan bari na wante am na ñu ànd ak sàmba muy ñaw ma koddu ñu lay gëreem di la sante ak may geey gis nañ taxawaay yi yàlla yàlla doon doon doon sutura ànd bi rafet na yàlla yàlla dëgëral ko xam nañ ni heure bii ku jóg ak naaj bi ni mu tàngee ànd ak sa xarit di ko accompagner loolu jar nga gërëm waa Ngoos yépp ñëw nañu moo taxoon ma démarré ci Ousmane Fall ñun liñ ciy kàddu rek mooy gërëm mbokk yi gërëm xarit yi yàlla dolli leen sutura bi jaay Seydi Wu Joon loolu laa ci amoon lu ma ci sànni jigéen ñi ah ñun ñu leen di gërëm ndax itam ay nit lañ yoo xam ni coono dépense yi fi am nii ñu ci sonn lañ di ci wax ci groupe bi nit ñi di dugal seen alal xale yi nekk ci biti lu ne lañ daj ku am sa cent mille dugal ku am sa deux cent mille dugal ni ko Ousmane waxee yooyu nag kenn xeebu ko war nañ leen feeñal seen waajur yi ni gërëm nañ leen sant nañ leen ak ñi nekk ci dëkk yëpp yàlla yàlla barkeel def sutura bi jaay Seydou Diop jërëjëf. vice président ci kàddu yi am solo yooyu macha allah yal na yàlla barkeel ko euh, soññee yi nga xamante ni bii def na ko ñu bàyyiwaale ko ñu ko xel ñun ñëpp te xam ni fii lépp lu fi def suñu bopp lañ ko defal waaw ba tax na. dañu war a ñëw jàll ci secrétaire général pour liggéey bii naka lañuy def ba wéyal ko moo tax balaa ñuy yegg si foofa pour xam importance liggéey bii nga xamante ni ñuy def importance bi mu am ci daje yii ñuy daje fii nga xam ni def nañ ko njëmeel def ko ngoos su daje bi musaana am dañ daan dégg ni rek ni mam am mari nguy am na ñaari doom buñ naan maam daawu ngóone ak maam mor isa ñu jàpp loola ndekete ëpp na loola waaye li ñu dimbali ba ñu mën a xam ni góor gu baax ji tëdd fële la mu amoon ci njaboot ëpp na ñaar mooy daje yi ñuy daje ak secrétaire général liggéey bi nga xam ni daf koy liggéey ak commission yi lool moo ñu may ñu mën a xam loola ndekete suñu maam ju baax ji amoon na ñeenti bant bu jàllee maam daawur ngóone ak maam mor isa amoon nañu seen jigéen bu ñu daan wax maam mati coro faal doomam la woon ci gëstu yu ñu def ba dem ba xam ni amoon na doomam ju tudd maam ma jooja maam ma jooja moomee ay njabootam ñi ngi ronu tànt bi loolu secrétaire général dina ci ñëw beneen doom ba ñu ko doon wax Mamor Coro moom yàlla daa dogal amul woon bant kooku it ay doomu mam amari nguy la ñu woon waaye li ñu ko xamal mooy daje yi pour ñu xam solo si nga xamante ni bii am na ko nga xam ni premier vice président mi ngi koy wax léegi léeg nit ñi dañuy gis ñu dajaloo toog rek xamuñu naka ak nan ak fan lañu jaar ba mën a yegg si fii loolee liggéey boobee mooy li nga xam ni secretaire général war na koo leeral bu koy leeralal nag pour nit ñi xam ni solo si nga xam ni fondation bi am na ko képp ko bokk ci fondation bi Dior Fall ma nga fële fexe nga jënd carte de membre nga xam ni yow mii kat man lii maa ngi koy participer ci kuréel gi bu ko defee secretaire général bismillah waaw nga xam ni daaw defaroon nañ benn film boo xam ne ñi ngi ko defoon ci Mame Mor Mame ak Mame Daawu Ngóone bi ñu ko defee dañ koo joué ba pare ñu jël ay acteurs yoo xam ne ñoo déplacé woon ñëw def fi ñetti fan diggante ngoos ak ñëwel film woowee fondation bi fexe na ba joué ba ba ñu jàllale ko ba mu génn loolu nag def nañ ko ci ay clé di ko jaay benn bu nekk junni junni ku ko xamul mooy cinq mille francs cinq mille francs mooy ay téeméer ba muy fukk loolee matul dara mooy ay téeméer ba muy fukk bu ko defee rek ku ne daal di faggu li fi nekk nag bariwul da ngay ne gaaw rek bu ko defee ñu soxla ñëpp ñu daal di bindu ñu daal di am loola nga xam ni ku suivre film woowee ah da nga gëna bay wat xel sa bop ni ah man de war naa am taxaway wa am am solo bu ko defé secrétaire général bismillah alaykum mbolo mi man ma ngi amat mbekté bu réré ak contenté ñëwaat di waxtaan ak askanu faale fi may tambalé damay top ci sama kilifa yi li ñu def mooy nuyoo jiital ci nuyoo bi Baye Alla Baye Alla Fall mi nga xam ni yàlla def na ni moom mooy sunu baay fii ci njëmel waaye sunu baay ci Amérique bi du moom kese des na baay Omar Fall dafa xaw a jagadi moo tax ñëwul ñu ko yóbbante nuyoo ak ziar. di ziyaare tamit suñu bàjjen Sukay Fall ndaxte ñun dañoo am chance suñuy at am na nu mu féete tuuti ci wàllu mag donte ñi ñu fi mag bëri na waaye li ñu gis suñuy baay ak suñuy eh, suñuy bàjjan dafa bariwul yàlla def ni bàjjan Sukay Fall moo fi des ci jigéen suñu dajee lu mel nii defe naa dina jaadu ñu ziyaare ko ñaan mbooloo mi yokk ko ñaan yàlla guddal fanam ñi ngi teg ci nuyoo bi sëñ Modou sëñ Modou Fall ñi ngi lay nuyu bu baax a baax di bëgg nga joxal ñu nuyoo bi waa dëkk bi yépp waa Njëmel yépp balaa may continuer di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ak teeru bi ndax lu mel nii buñ ko defee ci village bu mel nii tamit yàlla def ñu ñëw ci ni ñu war a ñëwee am na ñoo xam ni dañoo fanaan si am na ñoo xam ni def nañ fi ñetti fan ñu ànd ak ñoom teeru leen fat leen dugal leen ci néegi loolu mënuñu lu leen sant leen gërëm leen di leen ñaanal yàlla loolu noonu mu yàgg fii ci njëbel ndax cosaan la di teg ci nuyoo bi sëñ Ousmane sëñ Ousmane Fall ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar di bëgg nga jottali ñu bi waa Ngoos yépp góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi ciy teg membre bureau bi yëpp ak commission yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal di liggéey a Mansour wax na ko ñi nga xam ni ay invité lañ mu nekk ñoo xam ni dañoo sori ci ñun lool mën naa am ñu ñoo bokk rek dëkk Mbuur ñu xewle lu mel nii ñu daan fii ñëw teew defe naa ni il faut que ñu beral leen nuyoo moom la Mansour doon wax sànq ma yokk ci Ardo sama. sama xarit sama mag di nuyu tamit mbokki dëkkandoo yi nekk fii yépp ci tund wi yaakaar naa ni kenn manqué wu léegi pour dugg ci waxtaan bi damay wax ni rek toujours sama intervention ci ñaari point la mooy d'abord mbooloo mi comme yàlla dafay def benn yoon lañuy daje ci at saa bu ñu dajee li nga xam ni moo gën a jaadu te jekk mooy ñu fàttalite fàttalikunte fàttali mbooloo mi lan moo waral daje bi parce que buñ ko dul fàttali dina dem ba am ñoo xam ne duñu mokkal am na ñoo xam ne peut-être ñëwuñu daaw am na ñoo xam ñëwuñu woon daaw jéeg am ñoo xam musuñu fekkee réunion moo tax fokk ñuy fàttali li nga xamni ni ñuy dajalé dajale ba nga xamni ni day doon way kep ko xamni ni mi ngi ci ñun mën ko mën mën ko répéter par cœur li ñu dajale ma fatali ni rek mag ñi nga xamni ni suñu bay ñom ñoo amone yene di dajale askan wi fi ci dëkk bi pour ñaanal ñi nga xamni ni ñoo fi ko bi ñaati profiter di wax ni beneen yoon incha allah buñ ci yàlla yóbboog jàmm nañuy fexe di teel a ñëw ñu bokk ci kaabil bi bokk ci ñaan yi c'est vrai que suñ xam-xam soriwul mais nee nañ ñaan moom mbooloo la gën ko kenn nit donc comme yàlla def na macha allah am na nu ñu toll nañuy fexe di teel a ñëw ku julli fajar fexe ba euh, nga ñëw ci dëkk bi 10 mën a fekkee kaamil mën a fekkee ziyaare armée yi donc li ma doon wax mooy mag ñi ñoo tàmbale woon lii mais par ay kaamil lañ ko doon def mais jamono kus ne xam na ni dafa am nu mu évoluer nu mu doxe ñépp xam nañ ni développement dafa nekk loo xam ni ku si ne boo ci bàyyiwul xel ñu bëri dinañ dem bàyyi la ginnaaw ñun ñu ni nañ fexe ba réhabilité loolu mais nañ ci boole mbokk gi gën a xamante ba pare ñu jaar xool nan lañuy waxtaanee ba suqali suñu ñaari dëkk yi muy Njëmel ak Ngoos donc loolu mooy li nga xam ni moo tax association bi jóg fexe ba mbokk gi gën a xamante ñu jaare fa suqali suñu ñaari dëkk yi loolu nag dafa war a nekk loo xam ni ku su ne da war a téye par cœur parce que léeg-léeg nga dajeeg ñu sax ñun la waa affaire bi pour lan la

mais yàlla di dox jamono di dox comme li daam wax sànq ci biir euh, waxam ñu dem ba gis ni am na cellule boo xam ni feeñ na te jaadu na mu dugg si may fàttali mbooloo mi ne bii bi ñu koy sant yaa quatre ans wala trois ans di wër am na ñaari mag yoo xam dañ leen a seeti woon la ñu njëkk a wax bi ñu leen waxee ni dañoo bëgg a dajale njabootu Mor Issa ak njabootu Daaw Ngóone muy Modou Fall ak góor a faal bu ceey ah ñoom ñaar maa ngi fàttaliku bañ ñëwee wax leen dañoo bëgg dajale jabootu Mor Issa ak jabootu Mbeer Penda li ñu njëkk wax mooy ah njaboot gi ëpp na lool de njaboot gi ëpp na lool de mais ñun comme suñu xel foofu la yemoon mënuñu woon lu dul doxal rek ba ca kanam te comme niñ koy waxee mbokk dañ koy dox di ko wax yàlla def may présenté Ndeye faatu Fall Ndeye Fatou boo jógee taxaw ñu gis la moom mbokk da koo dox mbokk da koo dox wax ko yàlla def ci famille bi mu amoon affinité ak Khady Fall bu Tiwaawan bu Baye Mor Penda moom la xamoon ba ñëw di waxtaan ak moom ci lu bari moom it muy wax Khady Fall ci lu bari yàlla dafa defoon dafa def moom maamam muy maam mati coro boobu mu ñuy wax moom bàyyil bàyyil nañ ko ni maamam mati coro njëmel la jóge sëy njoox mu am fa baayam muy majoojo ak ñeneen mais atum pest ba moo fa jëlee ñeneen ba mu des fa majoojo majoojo nag daal di tukki dem Côte ñoom yàgg Côte looloo tax affaire bi même ñun biñu def recherche affaire bi xawon na réer amuñu sax finalement fan lañuy fan lañuy laccé bam renseignement yu wóor mais yalla moom bu bëggé défar moom kèn mënu ci dara ñu habituer à ce résultat moy que mam Mati Coro jigéenu sunu maam daaw ngoone la ak mam Mor isa nako mbolom mbooloom yépp xamee noonu léegi li tax ñu créer cellule aussi parce que texte yi permettre nañ ñu ko am na benn point boo xam ni toujours soo demee ba am loo xam ni mbooloo mi décidé nañ ko mën nga ko yokk ci texte yi ndax aussi ni ñu bëgg a doxalee dañoo bëgg a doxal ci ay loi ay réglement loolu moom euh, moo ko àddina am donc euh, tëralin bi dafa am comité directeur dama koy fàttali rek comité directeur dañoo tànnoon ci cellules yi cellule bu ne ñu tànn ci 4 mu a 40 membres qui ont fait les grandes orientations de l'association Moi, je suis un ko dinañ <laughs> mais par moment xam compliqué quoi orientation waouh, waouh, donc euh, le <laughs> euh, bureau exécutif bureau exécutif moi. <laughs>

boobu nag foog ma taxaw ci tuuti assemblée générale mooy bisu tay bii moom la nit ñi di wax tuuru famille moom la ñuy wax ndaje mais ñun li ñuy niñ koy waxee mooy assemblée générale ci wàllu tex yi li tax ma ci taxaw mooy tey jii mooy bis bi nga xam ni ci nii ñuy doxalee moom moo mën a dajale mbooloo mu toll nii ndax bureau bi.

xëy pertinence bi wala ñi nga ni nga war atteindre ses objectifs doo ko ni atteindre moo tax dama bëggoon mbolo mi bu ñu ci bis bu melni. nii bu ñëw rek ndax dañuy dem dajé ak suñu mbokk loolu mom lu baax la mais nañu ñëw déglu tamit déglu bo déglou, nga téyé ko parce que boko téyewul mok zéro ñooyam di nga dem ñun la ñuy lan lay def doo ci xam dara te lii ñuy def nii de pense que dinañ ci rendre hommage sax suñuy suñuy suñuy baay ñoom ñoo ko jëmbatoon li ñuy def nii mu nekk arrosage bi mais bii bokk na ci buñ ko ni doxalee benn façon doxalin bi mu nekk arrosage bu leer nàññi boo xam ni xob ya moom ala kuli àll day daal di génn donc may wax ni bu ñu ñëwee ci mbooloo mi nañuy déglu bu baax am na lu ma jot a wax avant ma yegg si loolu nañ ko téye bu baax mooy li nga xam ni mooy objectifu association comme dañoo ñëw assemblée générale aussi ci waxin dañoo waroon bureau bi ñu seet ñeneen ñoo xam ni sawar nañ wala mën nañu servir ci benn poste ñu renouveler ñu renouveler bureau bi tay ji lolu nak amuñu temps matériel bi pour défé ko noonu mais anticiper won nañ wax ci groupe whatsapp bi ne kumu intéressé nga bëgg dugg ci bureau bi wala nga dugg ci commission yi nga bindu amoon naa ci une dizaine de personnes à peu près donc dañ koy continuer képp ko xamni am nga yaakaar ni man nga ñëw japp ci liggéey bi ndax liggéey bi nak, euh, bu ñu waxantee dëgg dafa metti de. buñ waxanté waxantee dëgg dafa metti té kenn rek amna lo xamni boko dé bëggé def du soti motax may wo xalé yi surtout les jeunes man xalé la mais amna ño xamni xam ni ma gën jeune ñi nga xamni ñom ñoom lañ yaakaaree dynamisme ñoñu dañu wara ñëw japp ci liggéey bi ma ngi wax euh, Bada né ko man lima jaaxal moy ñi nga xamni ñoñu précédé won ya 4 ans 5 ans ci ginnaaw nekkoon ay xalé ànd ak Pastef bu rëy rëy rëy fu ne dugg fa mais ñooñu gisatuma leen ma ciy waxtaan ak Bada Bada mañ na ma daal ñooñu daal dañoo am seen soxla rek seen soxlaa leen <laughs> dañoo takk jabar rek daal di bàyyi bàyyi joog affaire bi donc yéen Bada loolu mu leen sànni xeer góorgóorlu leen ba mu bañ a demee noonu ngeen ñëw jàpp ci liggéey bi parce jaaduwul. man carte d'invitation sax man mako wara dem di defari loolu jaaduwul donc dans appel la bu may lancé à l'endroit des jeunes pour que ñu ñew japp ci liguey bi ma wax mbolo mi bureau bi ni mu composé woo mooy Cheikh Diane Fall dama ci ñew rapidement rek Cheikh Diane Fall moy président Mansour 6 vice-président premier vice-président pafal Fall deuxième vice-président Cheikh Wad, troisième vice-président Pape quatrième vice-président Bara Fall secrétaire général Fatou Mbaye secrétaire administratif Fatou Mbaye moom jox carton rouge ah, ah, Ousmane Fatou Mbaye rouge bi Fatou Fall trésorière Bigé Fall Bigué zone orange Bada Fall président commission organisation Bachir Ndiaye président commission projet et perspective Fat Bintou Fall président commission féminine Pape Gorofal commission jeune Ken mës ko gis Dior Fall président commission recensement Ibrahima Fall commission sociale ak Mor commissaire au compte. Morgei, Gueye par yi xam naa ni moom gëstoo goo ko ba léegi <laughs> ni bureau bi sama première pàcc wax fi may jublu mooy li nga xam ni moom lañ liggéey bi ñu jógee ngoos ak léegi ku ne xam na ni ngoos bañ fa ñëwee annoncé woon naa ni déposé nañ récépissé association bi ba ñu ngi doon xaar mu génn yàlla defal nañu sutura dañoo pare ngoos rek defe naa un mois après ñu woo ñu jox ñu suñu récépissé kon donc fu mu toll nii mbooloo mi nañ xam ne ñun am nañ suñu këyit yu valable loo xam ni lépp lu ñu bëgg a def loo xam ni dafa ànd ak association mën nañ ko def su weesoo loolu mbooloo mi comme ni ma ko waxee macha allah am na lu ñu tollu ba nga xam ni boo bëggee doxal association bi ba ñépp nekk au même pied d'information dafa am ay stratégie ay pexe pexe yi bokk na ci ay nemmeeku lañ ko doon tuddee maanaam réunion de bureau réunion de bureau yi dañ doon fexe ba nga xam ni duñ ko def benn place dañ doon wër suñ ko defee fii tey kooku njabootam dina xam ni ñii wala waa njabootam dinañ xam ni dina leen xàmmee te dina xam ni ñii dootu ko fàtte bokk loolu moo taxoon ñu jël idée wu di tourner réunion yi fu ne dem nañ fa bi ñu ci loolu ñi ngi njëkk a kër Bas Bas Fall Mbour mbok cellule Il def nañ tamit comme jamono dafa xat ci comme jamono dafa xat def nañ réunion en ligne jóge nañ fi ñëpp aussi dem Ma Samba Fatim la doon wax euh, Fall Ma Samba Fatim ñëpp kenn ko kenn dem wala délégation 80 kenn mais à travers li ñu nekk permettre na ma man ma dem fa keneen dem fa keneen dem fa dina am leneen lum la lum la apporter biñ ci joggé ñu def réunion en ligne le 17 janvier joggé waat nañ euh, Mbour ak Dakar ñew ngoss ñew ñëmel di préparer ndaje bi réunion biñ mujjé def ñu défé ko way keur Ousmane bay Ousmane bay doomi bàjjan jee xam nga yaakaar naa ni euh, boy wax amna ñu may waxal souvent mais so nee Ousmane Mbaye dañ naa la kuy Ousmane Mbaye mais lool rek dina tax nit ki ku ci dina Ousmane Mbaye luma bokk moy kan moy kan ainsi de suite te buñ doon tok ben place président rek lool du am lool yaakar na ni c'est très important buma paré ci lolu di euh, askan wi yëpp askanu Faaleen sank president ñew na ci ci Baye Omar Fall mom mi fi wañi ko waaye am na ñeneen soxna Marema ko wàññeeku ko na fi muy soxna sa góor a job mom amul njëriñ nak amul njëriñ ana mom amul mais soxna si ko na fi soxna Marema ndjay señ Mamadou Lamine Fall ko na fi moy mo nekkon borom keuru jor Fall bu Omar Fall Omar Fall bu Mengone Fall Mor mom mo fi mujj wañeku euh, Ngoos Mor Fal. Fall soxna Omar sis, Omar sis, bu badjan ngone Fall bu kumbaren. mo nek mak ci Mansour Siis soxnaam wañeku na fi muy koddu Njaay soxna sa wala doomi baara dañoo jóge ngoos daaw tuuti rek Binta ñëwoon na ndeysaan ca ngoos daaw moom it wàññeeku na fii fii pay pay soxna wala boog sunu yaay maire Mané Sall soxna sunu baay Ousmane Fall bu Kumbaareen moom it wàññeeku na fi soxna sa Sidi tur bi nag jàpp moom na ma Sidi Sidi Koura Samba Koura Samba Koura Diop boobu nag communiqué wuñ ci bu baax a baax moom euh, frère la ci Pape Diop Pape Diop it amul amul njëriñ ah soxnaam wàññeeku na fi li tax may lim lii parce que ñii bi ñu wàññeekoo association bi walla fondation bi am na ci taxawaay boo xam ni ñu ñi ñëpp seet na suñu xol. mu nekk taxawaay bu rafet boo xam ni askanu Faaleen yëpp retenir nañ ko bëgg ko partager mbooloom yàlla def na képp ku fi wàññeeku dinañ def délégation ba ñu xàmmee ni ñii ñooy njabootu Amary Ngouy njabootu Ngoos njabootu Njëmel dem na ba nga xam ni bu fekkee jaxal sax dañ koy joxe dañ koy boole joxe ndoo ko je pense que lolu bagn koy def ba tey ñëpp rafetlu lañ ko mu nek lo xam aussi nañ ko perpétuer diko continuer euh su kenn ñaanu ko yàlla mais bu ko yalla dogalé ma ci teg walum recensement parce que fofu sax lañu gëna a soxla liggéeykat yi may wax sànq parce que recensement bu ñu nekké di dajé ni té mënu ñu recenser njaboot gi de façon exacte. am na loo xam ni suñu liggéey di dina dina fa sooxe ba tax na waa recensement def nañ liggéey boo xam ni mën nañu wax ni c'est à quatre-vingt-dix pour cent euh, dam dal tall nekk na à quatre-vingt-dix pour cent mu am ay quelques erreurs xam naa rek mais erreurs yi kenn nit mënu ko régler maanaam ki nga xam ne mooy recensement mënu ko régler il faut que ñépp bokk ci pour mu régler ko lii arbre généalogique la arbre généalogique ci ñi jàng tubaab mooy dañoo euh, ñi jàngul tubaab dañoo jël Amari Nguy li mu njabootee depuis booba ba léegi ba sunu jàll sunu joon yàlla tey lii dafay permettre man bu ma toogee sama salon ma jékki-jékki gis Bada Fall même bu fekkee rus naa ko laaj mën naa ubbi sama kayit xool Bada Fall nan lañu bokkee ak keneen ak keneen ak keneen léegi nag comme leer nañu c'est à quatre-vingt-quinze pour cent près bëgguñu ko woon imprimer di ko jox nit ñi ak erreur même bu dee benn erreur bëgguñu ko woon imprimer di ko jox nit ñi ba tax na dama doon woowaat euh, xale yi ñu gën ci jàpp jàppale joor jàppale joor ñu gëstu document bi xool cellule par cellule fan moo ci mën a am jafe-jafe ba nga xamni dañuy am un produit fini bu kenn dul bu ñu am lu ñuy wax loolu moom vraiment appel la bu may bu may lancer à l'endroit des ñi nga xam ne ñoo gën a féete ndaw ma ñëw ci wàllum euh, projet yi wàllum projet yi parce que bu ñu waxee ni solidarité benn partie solidarité la beneen bi c'est les projets mooy nu ñuy def ba suqali loolu mooy wane ni parti bu am solo la ci mbir mi ni mu amé solo nak mo lay wanni likoy li nekul ci xaar il faut que ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel nga nekk ci bureau bi nga baña a nekk ci bureau bi dès l'instant que xam nga ni ñi fan lay jëm man nga dabu man nga woote téléphone man nga apporter sa contribution parce que bir bi reyna na liggéey bi reyna na go xamni il faut que ñëpp ñëw japp ci mais yalla mi ñuy sutural biñu commencé bi moy 3e édition daw année annoncé won nañu construction mur de clôture cimetière ngoss en cours jeexul won biñu dem biñu dem ngoss mais yalla def na jeexal nañ ko pour un montant de 1 million 800 xam nga 1 million 800 bi jóge suñu poste loolu du caaxaan loolu dafa laaj ay stratégie ay soññee ay waxtaan pour que nit ñi def ko ndaxte cimetière yi le fait que ñu ko ñu clôturer ko lool lu am solo la te fum toll ni ko fa rombu di nga xam ni cimetière yi yex nañ ko yex nañ ko clôturer benen bi moy dañu annoncer woon ay projet mbay ak sam daw ba waroon a ci liggéey bi après ngof noñ ko waxé tamit non lañ ko doxalé mais lima bëggon xam lima bëggon ma partager ak mbooloo mi moy daf ci am lo xamni ñun suñu cër la mais amna ci lo xamni ni partenaire yi la comme cëru partenaire yi la ñom yoon biñ la jaar lo rek ngay jaar ba taxna yoon biñu jaar lo muy préalable administratif yi fexe ba am délibération yi loolu dox nañ ko dox nañ ci liñ ci waron dox yakarna sa il faut ñu féliciter le monsieur le maire de Koul parce que mom bama ma ñëwee bañ ñëwee seet ci ko birom maag Bada Fall ak Nama dafa ni semaine prochaine dama koy duggal délibération mais yalla mi nga xamni dara tëw ko nak mo mom mo def ni officier d'état civil bi ci semaine boobu mois de novembre la limay wax mo wàññeeku woon xaw a perturbé calendrier bi bi mu deme ba deej ba passé mu bëkk ko duggal ci conseil municipal bi nga xamni ni moo décembre te bobu débat d'orientation budgétaire la won conseil yi bañ né no débat rek la def mo taxone mu reporté ko ba année 2024 donc fofu ci ngoss fofu lañ ci toll am nañ yi cadastre euh, géomètre defal nañu suñuy extrait de plan ba paré mais délibération yi lañ jotagul pour mëna euh wax ak suñu partenaire wala ba continuer wax ji ak suñu partenaire ci benen walu bi féké ñëmel la bobu amon nañ ay quelques extrait de plan mom lañu jël yobbu ko ci agence de la agence nationale de l'aquaculture bobu aussi yalla def na ci sutura dem nañ fa waxtaan nañ ak directrice directrice jël na dossier bi mom ci bopam ndax dafa am ko xam moñu bolé ak mom ba tontu nañ ñu officiellement bureau bi ñom nekk nañu au courant tontu nañ ñu officiellement le 17 janvier pour wax nañu bala yag dara mission technique dina ñew fi ci ñëmel pour xol projet bobu nan lañ koy mettre en place moy projet aquacole nan lañ ñuy ba di yar jën ci dëkk bi comme dëkk bi sori na geej leneen li wala boog toujours ci projet yi moo nekk ok cest à ci projet yi dama ko don xaw a sax ngeen bal ma xam nga projet mbay mi ak sàmm gi ñu waxoon njëmel te ma wax ni fu mu toll nii dañoo nekk ci procédure administrative yi yéene bi membre bureau bi am ak quelques membre association bi nga xam ni dañu koy yeggee mooy baax na naam partenaires yi ñu xaar leen waaye am na ci loo xam ni ñun waruñoo xaar partenaire ci ñun lañ war a commencer commencer jëmmal dara bu ñu fi partenaires yi fekkee muy noonu waaye ñun fokk ñu commencer

ba mettre en place forage wala projet élevage boobu ñuy wax mais lépp gëm-gëm la rek suñ ko gëmee mëna def mëna sorti rapidement bala partenaire yi di ñëw beneen projet bi nga xamni mom lay euh, terminer moy askanu faaleen suñu bëggé di daje di bëgg wax ñom kessé sen biir defe naan du sotti ndax àdduna bi dafa am nu mu bindoo dëkk yi am nu mu bindoo maa ngi wax sànq bi may commencé di gërëm village riverain yi ñi nga xam ni dëkkaan yi ci suñu wet pour wax leen ni ñun ñëpp ben lañ noo ñu nekkee ben nak la ñu toogoon ñu ni en bureau réunion mooy dernière réunion bi ñu cette fois-ci il faut que ñu def acte bo xamni askan bi yëpp ba jéggi askanu faaleen dañ ci gis sen bop ci lañ xalaat ñu nit kon cérémonie bi dañ koy bolé, ak don de sang bi ñu interpellé médecin wala docteur laborantin bu hôpital Tiawan. mu rafetlu ko lool wax ñu aussi importance organiser don de sang bi avons ñoom soxla bu rëy la tey jii nag bu ñu askanu fondation Amaringoui offrir nañ cinquante poches de sang hôpital de Tiawan. loolu yaakaar naa lu jul fàtte la te dina bokk suñu CV comme ñun dañoo bëgg a suba di dem di seeti ay partenaires partenaires yi nekk mbokk jàmbur ñun dañoo war a commencer léegi di dimbale mbokku jàmbur bokk na ci don de sang bi nga xam ne jigéen ñi wasin yi soxla nañ ko ñii accidenté soxla nañ ko ainsi suite fi may jeexalee mooy soññaat mbooloom yépp soññaat jeunes yi Nous ñëw intégré la ci commission recensement après arbre généalogique il faut que base de données bi aussi finaliser ko base de données bi loolu dina gën a tax man ma xam diw mooy kan ci lan lay ni ci lan mu man soxla man ko interpeller mu li parce que la ni ay détergents la ak ay eau de javel yu mel non. Awa Fall ku ñaan Awa Fall doom ci Ibra Fall Ibra Fall ci baydam Fall maanaam cellule Njaabi Fall mom mo koy defar indiwu ko sax pour jaay ko déedéet mais comme ñun ñoo bo ñoo woté association pour di dimbalenté mom mu am xam-xam ci li surtout walum formation jigéen ñi fi né té wara débat demaat yeneen dëkk ak i saabu war a ci yeneen dëkk moom mu proposer gratuitement défal ay mbokam formation nga xamni képp ku ci dem sa dëkk bu la nexé nga défar li diko jaay té yaakaar loolu am solo la donc motax base de données bi dañ ko wara finaliser Dior Fall donc loolu nang nga ci góorgóorlu seet ñen ñan nga ci andal ci liggéey bi

ñun ñi nekk ci liggéey bi aussi bu ñu gisee ni Ndeye Fatou mi ngi ci telle profession mi ngi ministère suba bu ma amee soxla ministère damay ñëw donc base de données bi dafa am solo Jor, loolu nga bàyyi ci xel beneen bi mooy li may soññ membre yi mooy cotisation yi surtout cotisation wu assemblée générale bi ñii di laajte cotisation yi neen dañuy sonn lool lool lool lool ba tax na buñ ñu fi fii képp ku nga xamni cellule la na jéem xol même buy wut keesu 1000 francs 2000 francs par mois nga xamni bala abbi dina mat té doko sentir mais ñi laccé mom nénañ nañ laaj bi dafa metti lool lool dañ ci gëna bayyi xel. leneen li moom ñun la suñ bopp laa koy soññ mooy réunion régulière. parce que jamono bi moom xam naa ne léeg day xat-xat boo xam ni <laughs> souvent pour ñu réunion dafay xaw a day day am décalage bu xaw a gudd daal donc loolu moom ñu ñu gën ci taxaw di wax ni rek man vraiment am naa kontaante bu rëy yor liggéey bi ah, waaw euh, yor liggéey bi depuis bañ commencé ba léegi. yàlla def ñi nga xam ne ñooy samay kilifa doon samay kilifa ci wàllum at ak hiérarchiquement ci bureau bi muy président ak les vice présidents mais bu ngeen xamee ni liggéey bi dañ ma ko bàyyil c'est-à-dire duñ ma wax dara cest à cër boobu ñu ma jox nag mënuma lu dul di leen ci gërëm leen sant di leen ñaanal yàlla yàlla éclairer leen guddal seen fan ngeen gën di taxaw di remercier tout le comité d'organisation ci bop bi waaju amul njëriñ ji quoi waaw mom day dépenser mais da ngay waru quoi day ñew naan lii laa dépensé fekk ni dépenser wu ko wax leen nag moom waay <laughs> di sante commission yëpp ndax liggéey bi metti na di sant ñi nga xam ne ñoo fi too ñoo fi teew ci bàyyi xel bi ñu bàyyi xel bi ñu déglu balaa may foofu laa doon daanale mais damay euh, nuyu ci nuyoo yi la di nuyu alaaj ñang élhage Malick ñaa ndaxte Moustapha ñang xëy na moo fi waroon teew te teewul mais bu alaaj ñang teewee dafa mel ni Moustapha ñang teew la ñun de li ñu xam ni ñu yaree ala ñang mi amna na at yu beur yo xamni ma maa ngi ñoy dem ci tailleur ba natando pisu tabaski kon c'est un frère avant yenen considération yi sax di ñew mais bu yalla defé limu def ci digënté bi ñaari dëkk yi te tout temps ñukoy rappeler bu fi Moustapha téwul mom mu téw fi yaakar na ni dina ko jar ñu wax ñu wax ko ba ñepp xamni ni mi ngi fi waaw di ko xamal ni place Moustapha Niang bi ni fi ci ngay koy euh, forage bi montant montant 11 millions montant 11 millions la Bachir euh, wax quoi hmm? c'est 3 millions c'est un budget de 2 millions 500 à 3 millions. loolu moo nekk li nga xam ni mbooloo mi moom laa bëggoon partage ak mais ren innovation ñu ci am parce que xamoon nañ ni dinañ gagner temps parce que am na ci lu bëri ci programme bi génne woon léegi ñu ni comme yàlla dafa def saa bu ñu ñëwee ñun doo ngay wax te leer na maintenant am na ñoo ci mbooloo mi ñoo xam ne bëgg nañoo interpeller bureau bi interpeller waaj yi ci li muy jël suñu xaalis bi rek ñu jox leen parole ñu bañ a guddal.

waaye dafa am seen ñaari bàjjen yu ñu sote woon muy fat lalla bu tibaar ak fat bane bu pekes mu amit yóbbante yónnee parce que alaaji Omar moo ma ko waxoon ni ma bi ma ko waxee du ma génnee néeg bi dama wóoluwaat ma ñëw mu ni ma yóbbante wu ma la dama laa yónni santal ma sama doomi mag yii ndax bi seen baay yi demee bàyyi leen ak léegi seen loxo jógewul ci man ca bu fi seen baay yi nekkoon nit lii nu may defal mënuñu koo weesu kon Alaaji Omar mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm ku dégg nag waxtaan wi ca comprendre ko dana xam ni lépp ak bokkoo ko lal mbokk koo ci xam loo bokk ak moom danga am yërmandeem lu toll ni nga bokk ak moom kon ak bokk dafa am solo eh, fi na nit ki lu man man man bu wéree boppam rek lay manal waaye ku tële soxla say bokk kon mbokk dafa am solo fii nag yéen a ngi dund ak bokk yéen a ngi koy dundal mu des rekk benn élément bu ma war a tiire boo xam ni ci Baye Mor Issa laa koy jëlee Baye Mor Issa yàlla da koo teg la mu tegoon yonent bi alayhi wa salaam yonent bi Makka la juddoo fa la ay moroomam nekk ay xaritam fa lañ nekk ak ay kóllëreem ak i bokkam waaye yàlla da ko ni da ngay génn da ngay mu ne ko fu ma dangay génn Makka mu ni ko fan laa jëm mu ni ko Medinatu Munawwara laa la jëmee ndax dafa am lu ma soxla ci yow xoolal Baye Momar fii la juddoo fi la defee lépp ñim maaseel nekk bokki boppam yi nekk fi ñu xëy ni ko fii da nga fi gental mu ni fan laa jëm ñu ni ko yaa ngi da ngay da ngay bi muy jégu fii sax xamul ni ngos la jëm ginnaaw bi la ko xam waaye ban ko ko tegee ni ko demal dafa bàyyi lépp la kilifa yi wax mu def ko kon kilifa dafa am solo jërëjëf secrétaire général ci rapport bi ñu defal ci liggéey bi nga xamante ne bii moom la kuréel yi di doxee liggéey bu fekkee dañoo bëgg mu jaar yoon faaw ña nga xam ni ñooñee nga seq ak liggéey ñu ciy wax seeni xalaat ak seeni gis-gis loolu mooy tax liggéey mën a dem parce que bu fekkee ni ñi nekk ci bureau bi dañoo jàpp ni mbir yi mi ngi dox rek te ñi nga xam ni ñoo ci bokk ñëpp waxuñ ci seeni xalaat su boobaa ya nga xamante ni bii ay faay la te bureau bi xamuñu ko wala bàyyiwuñ ko xel su boobaa loolu dana nekk loo xam ni dana jafeel liggéey bi li wax mooy ni cinq personnes yi ñuy tànn mooy ni ku ci am ay xalaat wala ku am ay question yi nga xam ni bëgg nga koo posé nga posé ko laaj ko su boobaa bureau bi daal di tontu bindagum nañ kenn muy Baye Samba Fall am na ku may yëkkati loxoom tur bi naka la ah Modou Modou Fall ak Baye Mor Guèye ñettangoogu ak ci jigéen ñi ku ci am question lu mu ci bëgg laaj wala lu mu ci bëgg dolli ma bind ma waaw aca ci soxna yi ku ca am xalaat Khadija wala wala Asia ku ca am xalaat wala contribution maanaam cotisation yi ngeen def yi ngeen laaj at mu nekk xanaa am ngeen droit poser question ni waaw li ñuy cotiser moom fan lay dugg wala fan lay dem amagum nañ trois personnes de ñaar moo ci des pour ñu mën a clôturer ñu ngi may wax ni góor guñ naan Baye Adama Fall borom dëkk Ndiob te mi ngi ñu ngi may wax dalal ak jàmm te di ko kon bu ko defee ñu dem ci question yi ki ci njëkk mooy euh, Baye Samba Fall ñu jox ko mu. def li nga xamante ne bii moom la bëgg a def. Samba Fall Maodo nee na mi ngi nuyu mbooloo mi nee na mi ngi jiital ci nuyoo bi mag ñi barke mag ñi yal na leen topp beneen bi mooy ndokkeel bureau bi nga xamni yor bi diko ko fi xam dara xam dara ni ñu def ba yombul dafa laaj sacrifice yu bare bare bari ak dag sa temps lu bari jox ko bureau bi ba am lu résultat bu melni ñu am ak organisation méthodique bi nga xam ni sii am na ci nee na daal mi ngi leen di gërëm ngërëm loo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem waaye xam ngeen yéen ñi li ngeen di liggéey pour ñépp la du pour yéen rek xam seen bopp it nag moo tax ngeen nangu loolu ngeen yanu boobu coono benen bi nee dana attention dana bayyi xel ci li nga xamni mom la taal ngol ngol wax avant daara am avant école yi tubaab bi diko fendi muy am leul la dan na ngeen ci bu bureau bi année prochaine parce que l'école école la nee na loolu li ngeen bëgg pour mu réussir dëgg ngeen am ci résultat yu bëgg yi ngeen bëgg il faut ngeen doxal leul. Xalé yi xamanté. xam seen bop. xam li nga xamni mo leen bolé ak li nekk seen digënté. Néna lolu leul rek a ko man Bo euh projet bi ñu amoon ci lenn moo gisee projet bii nu amoon fële pëlente di ci lamante ci fu njóogu nee na léegi la ko directeur de la cinématographie woo pour ñu génne fonds yi nga xam ni moom la ñu waroon a jox ca temps yépp ma lajal leen ci man nee na loolu bu ñu ko réaliser ba pare danoo bëgg a delloosi lël nag biir Kajoor parce que loolu mooy tax néegi yi nga xam ni dañoo bokk xam leen boole woon nee na loolu ñu leen koy fàttali xale yi màggaale loolu génération bu ne bu nu màggee dana wuute ak sunu génération bi nga xam ne ñun ngëlëm te da cee des ba léegi nee na ñu xool gox yi nga xam ne def nañu ko fu mel ni Casamance def nañu ko temps yële ci biir Siin ak Saalum am nañu ko nee na loolu moo tax li ñuy wax solidarité kenn ku nekk bàyyi sa moroom xel loo am séddu ko ca bokk ko ak moom loolu moo tax ñu réussir ko fële nee na loolu mooy tax geño amaat ci néeg yi parce que bala ngay wax barkeb diw ak barkeb diw avant barkeb nangam di xew sama geñog bàyyi moo xewoon te loolu lël moo ko mën a delloosi nee na loolu daal lay bàyyi xel bureau bi it bàyyi xel ci loolu nee na nekk na nag loo xam ne nuru na lu doye di ci dégg-dégg waaye lu am solo la ci xam li mu ëmb. jërëjëf Baye Samba ci euh, proposition yooyu mu def xam naa ni ndote nañ ko dinañ ci bàyyi xel incha allah bu ko defee ñu ñaan xam naa ni julli jot na mais ñu may ñi daanaka ñaari nit yi dugg ñu jeexal ko ñu julleendoo mbooloo benn yoon. mu jeex comme waxtu tisbaar bi moom mi ngi tàmbalee une heure une heure et dem na ba timis te muxtaar mi jeexagul nu ñu may après rek ñu yeggal ñu julleendoo benn yoon ci jàkki ñun ñëpp xam dañuy yëkkatañ doo jotaay mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp di leen jaar di yal na yàlla nangul ñu ci barke yonent bi jataay bi yàlla na yàlla defal ñu ko jataay bi mu nangu defal ñu ci lu kawé njort ci barké yonent bi ah, xana di gëreum ñepp rek ci sen téway parce que taxawaay rafet na lool képp ku fi ñëw tay ñu ne la famille sangam ñoy dajé fi wax dëgg yalla di nga bëgg bu fekkee nit ku baax nga ndax di nga xamni bokk yi bokk yu bëgg sen bokk lañu kon loolu yalla na yàlla yàggal ko yal na yàlla dëgëral ko ginnaaw loolu di sant mbokk yi nga xam ne ñu yore woon liggéey bi muy waa bureau bi président yaa ñi ngi ko séqal yal na yàlla fayal ñu leen taxawaay yi rafet na liggéey bi rafet na yal na yàlla jàpp ci ba ni ngeen ko yéenee defe yal na yàlla dëgëral leen ba ngeen mane ko noonu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa euh, bi ci des dama koy jëme rekk ci bokk gi tënk ko mooy président góor gi dafa nekk ak doomam di waxtaan di waxtaan ba ci yàgg ñu seen benn waay bu toll ni Mor Fall mais waaxu waaxu bu dëgër wut si doom ji ni bëreet tafu ci dënnu baay ji ni ko wuy bàyyi lii lan la mu ni ko doom lii mooy ponkal doom ji ni ko bàyyi xanaa ponkal moo man ci àddina bi mu ni ko déedéet doom ponkal jongo ko man fu mu ko fekk tëral mu ni ko bàyyi kon xanaa jongo moo man ci àddina mu ni ko déedéet jongo liir bu wexe ko man lu mu rafet rafet bu ko liir bu wex jàppee ba bàyyi ko sàqi baat yi boo ci dencee màngo mu man faa toog kon liir bu wex moo man jongo mu ni ko bàyyi xanaa liir bu weex moo man ci àddina mu ni ko déedéet liir bu weex nelaw ko man fu ko nelaw fekk mu ni nemm mu ni ko bàyyi kon xanaa nelaw fi man mu ni ko déedéet nelaw soxla su fajuwuloo man soxla su fajuwul ci bopp nelaw dootu fa nekkati mu ni ko kon bàyyi xanaa nelaw mooy daj dëpp mu ni ko mukk daj dëpp gi doom mu ni ko doom euh, du daj dëpp ndax nelaw soxla fajuwuloo ko man mu ni ko soxla su fajuwul si xanaa mooy daw daj dëpp gi mu ni ko déedéet soxla su fajuwul bokk yu ànd a ko man ndax bokk yu ànd fu ñu fekk soxla su fajuwul jàggi ko loolu ci suuf kon yàlla na yàlla dimbali ñu ba ñu mën a ànd mën a bokk li ñu bokk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf Baye Mourou man comme moom boo xam dafa dem ci soññee ci gën a jàpp gën a amaat taxawaay gën a amuk pastif bu ko defee dañuy dem ci Modou Fall bismillah mu yegg si mu wax li nga xamante ni bii moom moo la bëgg a jàllale. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakaatu maa ngi nuyu mbooloo mi mboolem ku fi tew ak ku fi tewul tay ñaan sama kaddu gi fekk leen ci jamm tay santat di leen gërëm baara di santat ndax man dom rek la sama baay mo fi taxaw bu ñu waruma wax man nak way may taw ci kër gi kon bu loolu wéyee dama leen di santat di leen gërëm di leen ñaanal fandu guddu ak wër li may dolli waata ñaan di dolli laaj di dolli waata ak dolli waata xellu mooy maam doo ngoone Isa Fall fan la jóge woon ba ñëw sànc Njëmel Fall fii ba tey lii mu am mu am ko fi fa mu bàyyeeku woon ba ñëw sànc Njëmel Fall ak lim fi doxal ba léegi yéen a ngi koy wax waaye loolu moo ma desee woon a leer lëndëm ci sama bopp manoon maa ngi koy laaj te lépp lu ci dëng rek man maa ngi koy jéggulu wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf Mamadou waaw moom de aw laaj la laaj maanaam maam Amari Nguy fan la jóge woon ba ñëw ba sanc njëmeel gi question bi nag na ñett daaw ngoon ise ngéey ak baay moor ise ngéey ñooñu mëringooy leen jur mëringooy jinaax daaw céer a ko jur jinaax daaw céer daaw ngoon ise sàqaa jur ñi ngay wax nii fii jógewuñu fenn fii lanu fii lanu ganee àddina dëkk bi mag la de sugeer nag jiñaax daaw céer ma nga xam ni céer a ko jur céer jëng moo jóge sugeer ca loolu moo andi suuf see nga xam ni nun ñii ñoo ko am nee na geño gi tibaar la tibaar la parce que euh, Birame Yacine buubu tibaar la dëkk waaw waaw amari amari nguy sugeer la jóge ñëw sañc fii D'accord. Wow. D'accord. D'accord. Ni lii nag euh, question la boo xamante bi poser posé nañ ko te jëm si mom tam asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julit yi ñu ngi nuyu ñepp di ñaan yalla sama nuyu fekk leen ci jamm. di kontaan ci bureau bi seen liguey rafet na question bi du fal laaj legi ñëmel njëmel li fi indi maam amari Yacine Sala fii jigéen moo ko moom lañ fi sancaloon maamam bu jigéen ci kër ndeyam moom la benn dammeel takkoon dama ko dama ko dama jàppatul tur bi nag mais mi nga ma bind dammeel boobu moom moo ko takkoon sancal ko fu ñu wax feelo feelo mooy wanag bàyyi Omar Fall yii moom lañu ñuy wax feelo defe naa Muudu Fall dina ko xam sancal ko feeloo bi kooku kooku amee ak damel mais jotuñu am doom ñoom ñaar sëy ba saay mais may gi moom nekk na fi sëy bi saay mooy sëy bi tas mais moomeel gi nekk fi loolu moo indi amari amari Yacine Sall fii mu ñëw fii ci suufu maamam boobu noonu fa mu jóge na xaw ma ko moom mais lii moo indi amari Yacine Sall maamam boobu la ñëw fii ci sañcalan feelo ci wana ngi bàyyi Omar Faye moo tuddam feelo mais tudd woon njëmil sax nag feelo la tuddal asalaamaaleykum wa rahmatullah loolu la ma sama baay waxan bokk. léegi macha allah léegi question bi xam naa ne nañ ko tëj am na ñetti réponse yu ci am mais incha allah dinañ ci gën a defaat ay liggéey pour mën a teg ci loxo nit ñi loo xamante ni bii loolu tegu la bu ko defee dañuy jëm ci quatrième personne bi muy Ndey Fatou Fall bokk ci cellule bi ñu doon wax sànq Mam Mati Coro bu mam ma joojo bu ko defee bismillah asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp waaw donc asalaamaaleykum mbooloo mi sama waa kër maam nuyu naa ñëpp ci seen tur ak seen sant euh, man la Ndeye Fatou Fall di doomu Majoojo Majoojo di sët ci Amari Nguy Mati Coro jur ko bon sànq euh, Baara mi ngi doon wax naan euh, xam na xamul tamit ni ma demee ak Khady Fall Khady Fall ñoo bokk fii kër maam mais également ki donne d'un Xadi Fall di Mam Tayir Fall kooku mo sama Abdoulaye Fall mi fi takkon Mati choro papa di Amadou Antayaye. donc noonu la ak euh, Fall sama mam la ci côté bobu mam la kay wax mais si côté bi sama cousine la wala sœur la comme kadior rek ñëpp a donc li tax ma parole qui euh, donne wax légui ma ndax c'est bien dina tax nit initiation mais tranche d'âge bi dafa ndaw Les may qui ñi au-delà de 10 ans 15 ans 14 ans pour nous gën a xamante ak ñoom ñu dellu siwaat ci ban pour nous faire ci loolu parce que loolu mën na dem créer peut-être des vacances Nous avons un mois de colonie de vacances ñi am ay doom am 10 ans 14 ans ou 15 ans ñu dajale leen ñu ñëw def fi benn séjour xamante wa dëkk bi ñu couplé ka sax ak période lël bi donc loolu xalaat la bu ñëw ni rek bima déggé ki di wax ma ni ko proposer après ñu sét naka lañ koy matérialiser dal donc ma ngi jéggalu si cadeau euh, yi bu dé ma sha allah jërëjëf euh, loolu tamit am na solo. bu ko défé tam. ku su ne sa tur ak sa sant. lii day wane rek. Euh, importance su daje bi parce que nu <laughs> euh, mu tuuti affaire baa ngi commencé xumb am na ñoo xam moom bu ñu tuddee seen maam rek ñu daal di commencé daanu moom. li ma mën wax euh, d'abord balaa maa ngi wax ci intervention yi mooy euh, xel day fatou bi may nuyoo sànq dama fàtte nuyu suñu mbokk pël yi nekk ngoos te yàlla def sa bu xew-xew bi amé kenn du len fi jitu ma leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax beneen bi mooy euh, am na ku ma envoyé SMS di ma laaj euh, kayit gi ñu yor kayitu lan la kayit bi kayitu association la comme niñ ko xamee rek ci association Sénégal léegi pour intervention yi parce que julli gi jot na te jotaay bi mi ngi bëgg a kii yenn yi ay contribution la jël nañ ci note te yaakaar naa damay boole bu Samba bi ak bu Ndey Faatu bi ndax pertinence am non seulement cérémonie de circoncision ñu jéem ko suqali mais kële xalaat na ba xool ni ñi nga xam ne am nañ tranche d'âge bu gën a kawe nan la ñuy coupler loolu créer ay colonie de vacances loolu réflexion yi dafay continuer beneen bi Mor Gueye la moom euh, man xaw ma woon ni man foogoon naa pexe yee rek la am ndeg am na pexe yeneen ah ah <laughs> donc euh, vraiment ñu ngi la ciy gërëm di la sant di wax rek euh, groupe whatsapp bi li tax ñu créé ko pour yii parce que xam-xam bi bu ñu ko dencee du sotti ah groupe bi nag gis naa ni sax ren y a mois commencé na di yëngatu bu baax a baax dinaa ci dinaa ci félicité waale soxna Ndey Faatu ak Adja Bintu Fall Nous avons bokk nañ ci ñi nga nous de groupe bi nous comme réflexion yi du du hmm? réflexion yi du jeex di dugg groupe di proposition question Modou Fall continuer parce que déjà version yi mi ngi vous buñ ko commencé rek du continuer réflexion yi di dig Modou rek réponse

ñu ngi taabal ji carte de membre aussi mu ngi fa ku fi joggé na nga yóbbaale carte de membre témer dërëm kessa la donc euh, daam defe naa loolu la nga tejj euh, defe ñu dem ci wa wa kon jotay bi jeexna xamna di am ay tout publication yu ñu def bala ñuy ñaan manam euh, ki nga xamante ni bi moom gor góorgóorlu ba defar Euh, madaar bi ak eau de javel bi madaar bi mi ngi koy wecceekoo ñaar téeméer maanaam 1000 francs lay jar ku ci bëgg man ngaa dem fee ci taabal ji ñëpp jënd ci jàpp ci te xam ni ku bokk ci njaboot gi bu keree dara rek ay mbokk ma ci njëkk taxaw jënd ko 1000 francs la bu dee eau de javel bi 500 la bu dee saabu yi bu dee saabu yi tamit 500 la téeméer la. ku bëgg tamit mu defal la formation ba nga mëna a defal lii di jaay ci gox ba nga nekk mom na pour defal la lola bu ko defee ñi ngi sant ñëpp tay gëreem ñëpp di ñaan yalla ma ñu fekke 2025 inshallah ngoss la kenn bañ ko tardé bu kenn jóg xamna ni ñi ngi préparé dañuy ñaan te julli bu ko defee mbiru ñangeen yeeg jangeen ñu daal di leen koy indil ñu daal di xéewlu ku fi ñëw soxla woo am yàlla na ko yàlla faj ku ci am woo am yàlla na ko yàlla saafara képp ñi nga xamante ni bii ay góor lañ tey ay célibataire bëgg soxna yàlla na leen ko yàlla may jigéen ñi fi nekk te amaguñu borom kër yàlla na leen ko yàlla may ñi nga xam ni dañuy sëy te amaguñu njaboot yàlla na yàlla may leen njaboot gu barkeel koy taxawu diine ak jamono ci ci yonent bi bu ko defee dañuy daal jox président mu tëj ñu daal di ñaan daal di julli daal di xéewlu ñu dajawaat ngoos incha allah 2025 wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ah di leen sant di leen gërëm daam liggéey bi rafet waaw ñi nga xam it ñoo doon jël film yi di couvrir événement bi seen taxawaay rafet na loolu yëpp macha allah ñu ngi koy rafetlu boobu ba léegi ñu ngi taxaw nit ñaa ngi toog ah di leen gërëm ci seen mobilisation di leen gërëm ci làmb bi ngeen làmb seen poos yi def ci loo xam ni kenn mënu koo xayma sax nag loolu ñu ngi ciy am mbégte yàlla bu daje bii doon suñu mujj daje yàlla nañu ko daje at yu bare bare bare bari te bu ne rek bu ñëw داق بكو جيتو يالنا نكو يالا دفل نمستو جي شيطاني جانغ فاتحة جلي تيران تبي صلى الله عليه وسلم نيانا الفونداشيون بي غورو بي نك نغين جي دوغ بولين بو افير بي ويسو ري نيو باي باسكا خام خام نغا فا يو ام سولو نغا فا كون نانيي دوغ لي ديف سيني كونتريبيسيون لولين لنتين نين مان كو لاج لول ديفنا لو ام سولو لا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 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يالنا يالا فجأة جوي يالنا يالا سافر جنغري يالنا يالا تخاو فونداسيون بي بمو إيك فو خامني دينا كاوي سونيو نجور نيب نيب آه، يالنا يالا غودل فاني نخبالا غاني نام نفا يالنا يالا غودل فاني E, yal na yàlla sàmmal ñu njaboot yi ba lii nga xam ni ñu ngi ci nekk di yëngutu incha allah ëllëg ñu jël ko teg ko ci eggale ko sax nag foo xam ni mosuñu ko fa yeggale ko loolu nag dafa laaj Pastef yal na yàlla def ci ñoom loolu ah yal na yàlla yërëm sunu kilifa yi nga xam ni bawoo nañ fi yal na yàlla teeraw leen ak yërmandeem yàlla na àllaaxira gënal leen seen àdduna yàlla bu ñu réccu lenn ci liñ doon jëf ci loo xam ni dafay boole mbokk am na ku ku ma jot li yóbbante Baye Omar Fall lu mat a dégloo ngi nii mu ne ma waxal Cheikh Tidiane ki wax doom la ci ñun mu ne ma nee ko fondation bi fii dëkk bi foo dem ab doom la loolu dafa am lu muy firi mooy wane ni ay jàngu ñoo fi nekkoon ñu fiy jàng alquran kon nag fondation bi nañu góor góorlu ba loolu ñu delloo si ko defe naa ni lii message la bu foor boo xam ni ku ne war na ko bàyyi xel kon di fondation bi dina noté point boobu romboon naa ko sànq waaye li tax li tax ma di ci taxawaat kon lii la bàyyi Omar Fall na ko yàlla yërëm ak ku mu fa fekk rek ak ko fay fekkit yàlla na yeex bay àll sank ma ngi deg mu nan fi la tipo maniko yàlla na yeex inshallah allah man na nek waye nak ba ca kanam kanam inshallah kon nak mbok yi ñu jël ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ah li nu bëgg man gëm na ni suñu ko gëmé dana nekk incha allah wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ajmain